bi de di islam tv dafay télé boo xam ne dara taxu koo juk lu mo xam ab radio la lu ku bëgg yalla lu ka nga xam ne yalla da ko ñor fum gis luñuy luy dimbali diine yalla ci ay nit ñuy volontaire di génne ci seen poste diko jappalé yow mbokum julit mi lo ci xaar ci bok ci ci ñi jappalé islam yépp dars bu fi jàll minute bu ne ñaata nit koy déglu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 mbaa loolu lépp mënta nekk am nga sa dara rek moo xam saw cent mille la saw deux cent mille sa million sa ba ci sa junni ba ci sa dara nga ñëw rek jox leen ko ne defal ma ci liggéey bi yàlla bi kon nag ñoo ngi leen ciy woo numéro yaa ngi noonu ci euh, euh, écran bi gaaw leen nga xamante ne ñoom ñoo yi weesu thème bi mooy atharu as-sunnati nabawiya fi islaaxi alwaaqi alijtimaai jeexintalu sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam impact bi nga xamante ne sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ko ci defar réalité sociale yi mu nekk thème boo xam ne bu bu am solo la duñu dugg ci detaay yi ndax duñu ñoo war a def waxtaan wi ki koy def mooy ki ngeen di Dom docteur Mila, Bamba Mbeng ci doomu réew mi la bàyyeekoo ci kawlak fa la jàngee ci école bu ñuy tuddee Ibnu Taymiya ba am dem bitim réew dem arabie saoudite ci dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci aljaami islamia bil madinati nabawiya donc mu dugg ci université boobu dugg ci li ñu tuddee kulliyatul xadith fa la dugg ba jàng fa am fa licence continuer étude supérieure am mu am fa magistère magistère buñ koy nettable daanaka doctorat la ci yeneen système yi ndax at yi nga xamante ne moom lay jël ci même faculté bi mu continuer waat ba am fa doctorat kon doctorat la am ci xam-xamu xadis ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu barkeel xam-xam boobu barkeel ko moom it kon li muy wax sixième la wax loo xam ne mu ngi aju ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ba pare nga nekk spécialité ci xadis ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam kon kooku li muy wax dafa nekk loo xam ne kon lu mu xam la kon duñu guddal dañ koy bàyyi bi idnillahi tabaraka wa taala mu dugg ci waxtaan wi fal yatafaddal mashkuran majura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 fii si jaamiu abdullahi ibn al-mubarak si weer wu màgg di weeru koor di leen ndokkeel di ndokkeel suñu bopp di ndokkeel jullit yépp di ñaan yàlla yàlla nangul ñu nangul leen li des ci koor gi li gën si li ñuy màng si ay tiyaabo si biru weer wi ndax njeexitalu koor gi moo ëpp doole njëlbéen ga ak digg ba ndax si la fukki fan yu mujj yi nekk si la laylatul qadri nekk yàlla nañu ko yàlla dëppale euh, thème bi nga xamante ne moom la ñuy jàngat ànd ak yéen si bés bii comme ni ko Cheikh Omar waxee mooy atharu sunnati nabawiya fi islaaxil waaqi alijtimaayi njeexitalu sunna yenent sallallahu alayhi wa si yéewanal réalité sociale bi nga xamante ne moom la ñuy dund rawatina suñu réew mii di Sénégal ndax dëkk bu nekk dafa am ay réalité am dafa am ay jagleem yum dul bokk ak beneen dëkk nga xamantene mom mo nek ci société bi bari na bari way go xamantene ku ci nek bëgg na ci am solution te solution bi ta bayé ko fenn lu dut ni ko lislaam gisee moo tem bu ni mel japp na ne njëriñam bi ci anam ba gëna kawé kawe lu ni mel góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp jot ci lu ni mel ñu mën faa jaaree mën a defar suñu société kon thème la boo xamante ne li kay gën a fësal mooy almajhudul jamaa yi mooy dajale ay doole suñu jàngat ko ci anam bu gën a yaatu ngir mu mën a jëriñ lool suñu waxtaan nag ñu ngi ko tënk si tomb yi may bëgg a wax bi si njëkk mooy njëriñ li nga xamante ne thème bii am na ko loolu dinañ si jukki ay ay tomb bu ñaareel bi mooy lan lañ jublu si thème bi muy jeexitalu sunna si yéwénal réalité bi ñuy dund suñu société sunna soosu mooy ban sunna ak ban wàccuwaay la am ci ci lislaam bu ñetteel bi mooy dinañ joxe ay namaadi muy ay exemple yoo xamante ne réalité la bu ñuy dund te mu aju suñu wàllu muy ay jafe-jafe la la si mbir yooyu bi mujj bi nag mooy dëgg-dëgg tem bi njeexital li nga xamante ni sunna am na ko si mën a yéwénal euh, réalité boobu nga xamante ne ñi ngi koy jànkuwanteel bi si jiitu mooy diine la jum ñun ñii di ay way gëm di ay jullit ñu ëpp si réew mi di Sénégal su fekkee ne bëgg nañoo saafara suñuy problème il faut ñu delluwaat suñuy principe ak suñu ngëm-ngëm moo tax bu ñu bëggee bëgg ñun ñu saafara noonu suñuy problème duñ mës a àgg fa ñu àgg ñoom ndax ñun ay way gëm lañ jullit ñi ñoo fi ëpp te culture bi nga xamante ne nii moo lëkkaloog suñu diine dafay yàgg am fi doole fa lañ mën a jaaree rek ngir saafara suñu problème te nag islaam daf ko mate ba mu mat sëkk mooy islaam bépp problème boo gis ci kaw suuf moo xam jullit ñaa ngi koy dund walla ñeneen a koy dund lislaam placé na lool ngir saafara loolu lu mel noonu rek day am sabaat sabaat mooy day sax day dëgër ci ngëm-ngëmam waaye lépp lu jógee ci biti waroog diineem war ko mën a jaxase wala mu te sabaat boobu lu am solo la rawatina jamono ji ñu nekk ndax saa su nekk nga gis lu bees lu ñuy dégg wala lu ñuy gis luy roogalaat suñu société ak suñu réew loolu li si mën a génne nit ki rek mooy mu am sabaat sabaat bu dëgër dëgër dëgër loolu nag la koy am ci solution boo xamante ne du du fàddanteeg diineem ba mukk kon tomb loolu tomb boobu lu ni mel danañu yombalal xamante dañ koy jaarale si diine jaarale ko si sunna mu nekk manhaj muy jaaruwaay di méthode bu ñuy taraase ngir jaarale fa suñu dund ak suñu dund njaboot loolu nak il faut nga xam ko ndax nit ki bu xamut fan la war a jaar day tëñax tëñaxi waaye bu ko xamee ba mu leer ko ne yoon wii mooy yoon wi jub nii la war a jaar nii la war a jaaree njabootam société bi fii la war a jaar loolu day nekk mën hëj bu leer nañ boo xamante ne nii kenn du kenn dootu fa nekkati di tatone lola it dana ko dana ko jur bu ñetteel bi mooy jàngat lu mel nii ba tasaare ko ci société bi dana jur ak bennoo dana jur ak booloo guy am ci doomi société bi ci doomi réew mi ba du am dara lu leen di feqale wala mu leen di féewale rawatina loo xamante ne nii day jeexital day jeexital ndax ñom ñep bu wenn yoon wi la ndax ay julit lañ xam nañ ni sunna li la jàngale diine li la jàngale ñu daal di fay jaar problème yi am seen biir te du mën te du mën am si doomi réew mi bi si mujj nañu jàppale si bépp problème bu gaar ñu xam fan lañuy jaar ba indi si saafara biir yu sosu si biir mi mu nekk lu tuuti ñu koy ñu koy nab nabi fi coow loolu fi amoon si ku jug ne day dal si ay aw nit ngir na ñoom dañuy woote si yoonu yàlla su kaa fay laataa mu yegg fenn fi mais bu joon naa dem ba nar a xaw a ëppi loxo waaye sant borom bi subhanahu wa moom mi si teg loxoom ba mbir mi mujj dal loolu yépp nag moy ñak ñak bokku li nga xamanteni moñu boole moy sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam suñuy problème ñuko fay gar di xol naka lañuy ñuy ba mu wu lolo fek amut problème yoya du mané jeexna waye mën nay mën nay yeesar sa su sa su nek kon lolé ak li nga xamanteni dina ñëw ci biir waxtaan bi yépp ay mbir la yu wane solo si nga xamante ne nii thème bi am na ko lan lañ jublu nag si sunna yonent sallallahu alayhi waxtaan wi mooy lépp lu bàyyee ko si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ne moom moo ko def wala moom moo ko wax yi ñuy tuddee ay jikko ki melokaan ak bindin wi ko borom bi bind loolu yépp day dugg si sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam si xamale nga gën a kawe kon sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam mën ngaa wax ne moom mooy diine ndax amul dara loo xamante ne ba mu wax si ay xadiis taraktukum ala almahajjati albayda layluha ka nahaariha la yazigu anha illa haalik bàyyi naa leen si diine ju leer naññ naññ guddeem ak bëccëgam ñoo yem ku si nara sànku rek dafa nara alku sunna yonent Sallallahu alayhi Wasallam nak mom moy lolu kon du mi ni koy xam borom xam-xam yi fóore yi di xamle lañ jublu si tem bi moy lo ne ku def am tiya bu ko bayyi do am bakar nga kon ku mu neex def la daal waaye ku mu neexut boo defut amul dara lu siy topp déedéet sunna moo gën a yaatu loolu lépp lu ñëw si cosaan bànqaas la du bànqaas loolu yépp day dugg si sunna yonent sallallahu alayhi wa jox na ko sunna yàlla ni mu doon wàccee si yonent sallallahu alayhi wa sallam alquran noonu la daan wàccee si moom sunnaam wax te ada ak ñett di tukkeeg ñoom di la seet si ngay tracé état islamique loola la nga war a lijjanti si société bi mel lu bëri la lu bëri la tey jii kenn si ñun rek bu fekkoon ne dafa la muy wax la muy def lañ war a bindal lu bëri lay doon waaye jàngal comme ni ñu aajowoo alquran ndax mënuñoo dégg alquran ak diine walis walis sunna soosu moo tax boroom xam-xam yu bari comme ku mel ne al imaamul awzaay daan na wax naan sunna yenent sallallahu alayhi wa sallam wala alquraanu borom bi subhanahu wa taala moo gën a soxla sunna si sunna di soxla alquran ndax alquran mënoo kaa dégg mukk mukk mukk mukk lu dut dangaa <clears throat> dellu sallam mas nay jàngal ay taalibeem kan moo la wax julli tisbaar ñeenti ràkk la julli tàkkusaan ñeenti ràkk la nii nga koy defee ko xanaa newul ne yenentu moo leen ko wax ñun ñu wax leen ko kan moo la wax lii kan moo la wax lii kan moo wax lii limal ko mbir yu xamal ne yenentu daf ñoo jàngal ñun ñu jële si moom loole lañ leen di jottali bëri na lu bëri loo xamante ne nii ba léegi ñun waxaguñ leen ko te jàngee nañ ko si yonentu sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy sunna yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo gisee si ay jamono rawatina jamono ji nga xam ne xam-xam desee tumuraanke lool ñu nekk réew moo xamante ni lu waaye neex def am ñu sañ a di songu sunna yonentu sallallahu alayhi wa sallam di songu téere yooyu loolu dafa nekk dañoo nekk si réew moo xamante ne dooleeluñ fi diine lislaam dëgg dëgg dëgg dëgg waaye am na yeneen réew yuñ doon nekk nit ki bu taxawee songee noonu sunna kooku moom dañ ko la mu yellool su fekkee ne mooy si li mu nekk boobaa ñu te jaaj keneen ku dut comme ni mu wattee alquran moom waaye sunna tamit noonu la ko suñu borom wattee si yi nga xamante ne nii muy sunna yonent lu bari dañ see دولي سوسول كو يونت صلى الله عليه وسلم نغلا ني ديفيك موم من يعيش له الجهابيدا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من حديث يوي دي سنه يونس صلى الله عليه وسلم كان غام يي نوي دوندك موم كون يالا موم مو تاغات اي بوروم خام خام اي كان غير ني واتول كو سنه يونس صلى الله عليه وسلم ني جوخي سي لب لو ني ورا جوخي سي كاتان اك تيونا بو لولي دادي دادي صح مو نيك اي تيري ني بيند nit ñi di delu sa su nek mën a ngir mën fa jëlé la nga wara soxla ci sunna yonente sallallahu ibnu ji tarif na bees di diko ngir borom ya sa gëna siiw nak ya sa nek yëpp dafa wër te saxiixul buxaari moo siiw ak muslim wala ñuy tuddi as sunan moy yi dajale lepp luy ponk ki atti yu aju si shariatul islam te yi sa gëna siiw moy abu daud ak tirmidhi sam wessu si konte boroom xam-xam yu njëkk yeneen nañ weesu ñeent fukk ñeent ñeent fukki junnee xadis quarante mille xadis te mool bi ñu ko mool yées na loola yées na fanweeri junnee xadis six cent mille xadis ana fu ko yenentu waxee loolu du xadis loolu yenentu mosu ko wax te doo ko fekk si benn téere xadis yenentu mos ta toll noonu téeméeri junnee xadis xaaju xaaju téeméeri junnee xadis mënoo ko àgg dafa di nag ay temps nga dégg si waxinu borom xam-xam yi ñu naan diw de mokkal na nangami xadis téeméeri junni mokkal na juróom benn téeméeri junni xadis loolu lañ sa jublu mooy yoon ya ñuy nettalee xadis ba xadis bi day bëri yoon xadis yi dama la amal binniyaat nee nañ ñaari téeméeri yoon la ñoom nag si seen compte dañ naan kon juróom-ñaari téeméeri xadis la waaye benn xadis bi la ndax benn xadis bi la yeneen wax sallallahu alayhi wa sallam moo tax yooyu il faut nit ki daal di koy xam waaye xadis yu sax benn par benn loolu moom bëriwul bal buñ juróomi téeméer kese xadis junneeg ñaar téeméer du ko weesu wala junneeg juróomi téeméer si ay xadis loo xamante ni moom moo tënku sharia shariatul islam kon loolu mooy sunna yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu nekk lu am solo loo xamante ne nii jullit bi mënul di ko ñàkk di si dellu ndax suñu borom moom moo wax ne si alquran ne yonent sallallahu alayhi wa sallam wacce na si yow li ñu tuddé ak dhikr wa anzalna ilayka dikra li lin nasi ma nuzila ilayhim yàlla mo wacce si yow mo xam sunna yonent la sallallahu alayhi wa sallam واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة نجن وساري لب لنيو تدسين di jàngale seen néeg yi yéen soxna yonent sallallahu alayhi wa si laaye borom bi subhanahu wa taala ak xikma xikma foofu mooy sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko al imaamu Shafii leeralee si téeram bi ñu tuddee Risaala kon loolu mooy sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam si gàttal mu nekk xam-xam boo xam ne xam-xam bu am solo la xeet wi yëpp dëppoo nañ ne dañ cee war a dellu ba mu des sa jamono ju yàgg ñaari ñaari kuréel ñu ñu tuddee az-Zanaadiqa mooy ñooña nga xam ne duggoon nañ si lislaam di ko mbubboowoo te ay kàccoor lañ ndax dañoo tubbi ndax lañ doon wax moo gën a moo gën a garaaw loola bu ñaareel bi mooy alxulaat min arrafida mooy chit ña si ñoom si jamono ñoom ñoo doon wax ne duñ dellu si sunna ndax ñoom dañoo am seeni téere seeni téere boobu loolu nag moo roogalaat suñu jamono ji ba jur li ñu tuddee mooy ñi nga xam dañ naan dañuy yem si alquran kese te duñ jël si sunna yonente sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu moom ku nekk xam ne mënta nekk ñooña nag ngay dégg ña bokk si ñoom wala boog ñuy xalaatee ni ñuy xalaatee di wax lu ni mel mooy bëgg a delloo sunna yonente sallallahu alayhi wa sallam waaye delloo ko lépp loolee moom képp ku koy wax du génn si kuréel yooyu nga xam ne tudd naa leen te kuréel bu si nekk rek boroom xam-xam yi amuñ na table na ñooñu moom dañoo génn lislaam bu ñu jógee foofu nag muy tomb bu am solo danañ ñëw nag si joxe ay exemple muy li ñu tuddee ay namaadij si réalité sociale bi nga xamante ni moom moo nekk suñu suñu réew Sénégal dafa di réew moo xamante ne réew mu ndaw la ndax population bi weesuwut dix-sept millions wala bu ko tegee tamit lu tuuti lay lu tuuti lay doon waaye nag bari na ay xeet yu mu ëmb am na ñoo xam ne ay wolof lañ am na ñoo xam ne ay lañ am na ñoo xam ne ay séeréer lañ joolaa bambara soninke mandinke ke yooyu yep ay xeet la yu dund fi si bir rew mi ak yeneen yu ma tudd ku si nekk nag da am loo jaglewoo si réalité boo xamante ne day dellu si say aada da day dellu lo aada jàngat loolee nag moom looloo tem bi taxu kaa jukk ndax loola moom day laaj jàng bu gën a yaatu lool lool lool te suñu mbokkal docteur Murtada bind na si risalatu doctorat si aada yi nga xamante ni moom moo nekk si biir Sénégal si anam ba mu gën a yaatoo waaye nag am na loo xamante ne nii réalité la boo xamante ni ñëpp ñoo ko bokk ñoo koy gisandoo ñoo koy gisandoo loola nag insha allah moom la ñuy jukki si si si tomb yi may bëgg a tudd bokk na si loola mooy suñu réalité bi ñuy dund mooy Sénégal dafa di réew moo xamante ne ay jullit lañ. waaye li ñuy askanelee diine ci ay xewu-xew yuy bees saa su nekk kenn xamut lu mu doy kenn xamut lu mu doy ku ci nekk ak la ngay askanelee diine di ci jaamu borom bi subhanahu wa mu nekk ay daje yoo xamante ne nii ay mbooloo ñoo koy teewee lu bari di fa dem si wàllu waxtu lu bari di fa dem si wàllu coono lu bari di fa dem si wàllu si wàllu am-am loola réalité la boo xamante ni ñu ngi koy dund bokk na si réalité yi tamit mooy ñi ngi dund si yenn événement yi nga xamante ni événement diine la walla événement yuy nit ki di yegg si loo xamante ni sharia yoonal na ko lu mel ni céet walla lu mel ni tudd dañuy dund réalité boo xamante ne nii mooy yàq gu métti da siy faral di am yàq gu métti da siy faral di am loolu nag muy contour li ñuy dund si ñàkk ci biir réew mi nga xam ne ay temps kay yàq ak kay génne lu bari bari bari da ngay gis ni amu ko dana jaar fu nekk ngir man bés boobu mu daal di koy mu daal di koy taaral te boo xoolee coono jam say jam say togg loolu sharia tegalu ko ko diine tegalu ko ko loolu it réalité la bokk na si tamit mooy problème yu bari dañ koy dund ñun suñu société muy dellu si ay jafe-jafe dund di lekk ak naan jafe-jafe feebar mën a faju jafe-jafe jàng fa nga bëgg a jàngee loolu ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu koy dund doomu aadama yu bari tey jii si weeru koor wi ñu nekk am na ñoo ne ngir ñu dog rek day nekk lu jafe-jafe jafe si ñoom loola réalité la boo xamante ñi ngi koy dund waaye ñi ngi dund tamit xejjalikoo boo xamante ne nii tar na lool xejjalikoo boo xamante ni dana yegg si benn dimension buy waral ay xuloo ak ay xiiroo ki ŋaayoo te la ko waral benn mu doon pas-pas wala bokk jëflante buy dox diggante doomu aadama yi wala bokk mu nekk problème yuy dellu si politique wala problème yoo xam day dellu si famille ak na muy dundee loolu saa su nekk nga daa koy gis xuloo ak ay temps dana yegg ñuy tojante bopp ku dem si tribunal yi danga nga gis problème yu bari yoo xam dañ ko fay gaarante loolu moo koy waral bokk na si li ñuy dund tamit mooy ay kirim yu bari yu ñuy faral di gis si réew mi rawatina si jamono ji te loola du ma ne amut fi woon waaye néewoon na fi lool si anam bii si rey doomu aadama te tey rey ga xaru léegi dafa mel ni mi ngi xaw a booy suñuy nopp diw xaruna diw xaruna diw xaruna te loolu daanu ko woon dégg lu boo ko daan dégg boo ko déggee ren bala nga kaa déggaat lu yàgg lay doon jël alal joo moomut wor ger xaw wi sutura doomu aadama rawatini si réseaux sociaux yi nga xam ne nit ki ba muy wax ak yow yaa koy enregistré wala mu yónnee la audio jékki-jékki audio boobu tas fu nekk loolu réalité la boo xamante ni ñu ngi koy dund tey ji bokk na it si réalité yooyu mooy gëm gi ñu gëm ñu bari si société gëm gi ñu ba gëm wàllu jibaar ak wàllu xar ga fuufeek maamal nga xam ne nit ki yaakaar na ne lépp lu mu war a am ci àdduna moom loolee moo ko ko war a may du njàngam du góorgóorloom ba ñu aj ci seen xol yi tey jii boo doon dem si yenn bërëb yi nga xamante foofu lañuy suul seen jibar yu bon yooyu almeer yeeg géej yeeg ak njanaaw yi nga xamante ñoom lañ koy takkal li ñuy def si réew mi si wàllu googu yi ba si sport bi sax àgg na si dimension boo xamante yow mënoo kaa mënoo kaa imaginer nga xam ne jibaraankat yi ñooy ñi ëpp doole tey jii si biir réew mi ñoo fi ëpp koom yàlla bu mu nee dafa sant sant boo xamante sant bu xaw a tumuraanke la oto buñ nee nàngam la sant da ngay gis ne daanaka gars yi dañuy jañu dem si moom parce que moom yaakaar nañ il faut que sant bi ñàng lool mu nekk koo xamante ni moom la muy joxe mënta jaas ngir gëm-gëm góor ak jigéen mag ak ndaw ay intellectuel yoo xamante ni fi ñu àgg seen niveau intellectuel kawe na lool waaye buntu boobu da ngay gis dañ si fitna wu saa su nekk loolu réalité la tamit bu ñu dund bokk si tamit mooy li ñuy dund di ko ji suñu société mooy féewaloo gi nga xamante ni mi ngi am diggante way jur yi ak seeni doom way jur yi tey jii ñi ngi dund naqar gu metti gu dox seen diggante ak njaboot way jur baat si biir kër daanaka xaw na kaa ñàkk ndax xale yi déglootuñ leen te kenn ku si defoon lu mu defuwut xale ba lu mu tuuti tuuti tuuti te ne nii sharia d'accordu si te du si d'accord ba mukk ak colka goo xamante ne nii boo nee woon cëpp si réewum tubaab tey jugee fa cëpp si suñu réew mi mënoo mënoo teqale ñaari réew yi ban moo si jullit ak ban moo si dut jullit rawatina boo xoolee jigéen ña daanaka la ngay gis fële rek moom ngay gis fii loola it réalité la boo xamante ñi ngi koy dund ñi ngi dund tamit li ñu tuddee adamu takaafu il ijtimaa yi mooy ñàkk ko tolloo si wàllu social da ngay gis ñoo xamante dañuy am lool bu mu jégg dayoo am ñoo xamante li ñu góor ci alal loolu moom na ump jaam ndax bariwaay waaye noonu ngay gisee tamit ñoo xamante ni dërëm bi gën a tuuti amuñ ko te ka am lu ne gàññi lu dul jeex du geesu ka nga xamante ne amul benn dërëm yàlla moom mooy joxe wërsëg ñii mu jox leen lu bari ñii mu wax jox leen lu am ñii sax mu bañ leen a jox waaye lu si nekk rek am na nu ko lislaam jàngatee ba ki nga xamante ne ni wërsëgam demeewut noona du yëg benn coono bi si dund gi muy dund si société booba su fekkoon ne jaarale nañ ko si yoona sunna kon loolee yépp ay réalité la ak yi ma tudd yoo xam ne ñu ngi koy dund suñu société lii nag su fekkoon ne dafa nekk ab nataal bu ñu nataal kese ne suñu société ni lay doxee kon xam nañ ne feebar bi feebar bi tar na lool te it yaatu na loolu nag faj ko nekkut benn fan nekkut ñaari fan faj ko jéego yu mat sëkk lay laaj jéego yu matale lay laaj waaye boole anam gañ koy fajee tamit lay laaj yépp nag ñu daal di koy delloo suñu ngëm-ngëm te mooy li nga xamante ni moom lañ bëgg a leeral wala jukki lenn si loola si muhaadara bi suñ jógee foofu nag ñu ñëw si li ñuy tuddee dëgg-dëgg tem bi mooy sunna yonente ban jeexital la am si mën a wàññi problème yi nga xamante tudd nañ ko fii wala boog mu daal di koy fexe ba daal di koy saafara loola ngir ñu daal di si indi ay leeral il faut ñu xam ne comme ni ma ko jukkee woon si laltaay bi mooy sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam foofee kese lañ mën a jaar ba suñuy problème ñu daal di koy saafara ndax sunna yonent sax mooy diine l'islam te lépp lu nekk problème boo gis rek ak lépp lu nit ki di dund ji jafe-jafe jafe sala sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko laataa muy faatu joxe na si solution loolu nag mën nañ koo delloo si ay tomb yu bëri tomb yu bi si njëkk mooy atharu sunnati nabawiya fi l ittihaadi wa nabdil furuqa lan mooy njeexital li nga xamante ne sunna yonent saa sa am na ko si bennalee jullit ñi ak xatal lépp loo xamante ne nii teqalikoo la ak xejjalikoo buy dox seen diggante senegal gi ñu nekk ay kuréel yu bari ñoo fi dund am na niti tariqa am na ñoo xamante ne nii dañ ne ñoom ay salafiya lañ muy salafis amna na ñoo xam dañ naan ñoom faruñ fenn ñoom daal ay julit lañ ñi ngi jaamu seen borom subhanahu wa taala amna na ñoo xam dañ naan faruñ fenn waye bo xolé idéologie bi ñi gëna yor moy lay bayé ko si bi ya si ay si ay xalaat kon mu nek société bo xamantene ni li fay dundu te ñu wuté ay xalaat bëri na trop bal boo demee si benn kuréel gi nga xamante ni ni sax dañ naan benn kuréel gi la seen biir sax ñoom dañuy wute dañuy wute ay xalaat dañuy wute ay idéologie ñooñu nag pour dajale leen ñu daal di nekk benn ba duñ am dara lu leen di teqale loola lu jëfe la loola yombut noonu ñu nekkee nag di ay kuréel yu wuutee jur na ay mbir yu bari yoo xamante ne ñoom dañ see lott donte dañ ne réew mi li fi ëpp ay jullit lañ nee nañ plus de quatre-vingt-quinze xam naa quatre-vingt-dix-sept pour cent ñoom ñëpp ay jullit lañ waaye boo xoolee jullit ñi liñ war a dund ci seen diine ci biir réew mi da gis ñi moom lott nañ ci. tey ku nekk di jullit yaakaar nga ne yaakaar naa mébét bi ngay gën a mébét sa dund mooy réew mi dem bay bay àtte woo diiney lislaam ba si yi nga xamante ne dafa laal lu gën a jokkook ñun si wàllu dund gi ñuy dund ak suñu famille dangay gis ne bàyyeewuñ ko ak ñun comme li ñuy tuddee al axwaalul usariya muy li dellusi dunduk famille gi nit ki du dundee si biir këram nga xam ne loolu nit ki moom moo koy orienté boo delloo si yeneen réew yi nga xamante ne àttewuñu lislaam sax dañ ne côté boobu moom dañ koy bàyyeeg diine lislaam na ko jàngalee moom moo gën a wér waaye ñun suñu suñu réew mi da ngay gis ne bàyyiwuñ ko ak diine lislaam ndax bu saa su nekk yaa ngi dégg ay coow ñu koy yóbbu si tribunaux yi si wàllu miraas jëkkër ak soxna ni ñuy nekkee bu fekkee ne teqalikoo am na naka la ko islaam di gisee loolu yépp da gis ne problème yu bari lay jur te solution bi si lislaam joxe mooy solution bi gën a mucc ayib waaye dem na ba nga xamante ne nii pour ñu pour ñu doxal ko suñu biir kër yi dafay nekk loo xam ne ay jafe-jafe la il faut ñu delluwaat si luwaa yi nga xam ne moom moo ñu tënk te loolu safaanug loolu mooy ñi fi nekk di aqal nga xam ne bariwuñ te nekkuñ ay njullit wàccuwaay wi ñu am ci société bi mu ëpp doole fuuf wàccuwaay bi jullit ñi am su fekkee ne dañ leen di dañ leen di bàyyi xel ci seeni mbir mën naa si joxe exemple rek xool leen tey jii suñu feet yi nga xamante ne feet officiel la li si li si génn te ñeel jullit ñi boo ko comparé la sa génn ñeel ñeneen ña ñele ñu ëppale fuuf xañ na si jamono yi nga gis ni ñuy dugal yii ak dugal leneen ak leneen waaye bu njëkk ba daanaka feet woo xamante ne nii beneen diine ji mi ngi koy feetu rek si loo xamante ne boo delloo si réew ma ma ma ñu nootoon di duñ ko feetoo noonu sax da gis ne ñu koy feetu si biir réew mi ak privilège boo xamante ni nii yaatu na lool ñu daal leen koy jox si biir réew mi te ñoom seen ak lim tuuti na lool. te loolu nag ku nekk xam ne ne safaan bi moom moo waroon a am jullit yi majorité ñoom ñoo waroon a gën a dund lañu bëgg a dund seen seen diine si biir réew mi tey ji nit mën naa jékki-jékki jug songu diine lislaam te kenn du wax waaye képp ku songu beneen diine danañ la tuubloo sa na mu gën a gaawee loolu xew-xew yu weesu wane woon na ko bu yàggut lan moo waral loolu la ko waral mooy dañ ne ay jullit lañ waaye amul dara lu ñu tënk kii jullit la day mbubboo walla mu nekk keneen ka jullit la day mbubboo walla mu nekk loolu nag problème yuy jur bari na trop bi si njëkk moom mooy teqalikoo teqalikoo si wàllu pas-pas teqalikoo si wàllu manhaj teqalikoo si wàllu suluuk mooy ni ngay jaamoo sa borom subhanahu wa taala te teqalikoo googu mazmuum la lu ñu lu ñu bañ la si sharia moo tax boo delloo si xadiisul iftiraaq xadiis bi nga xamante ni moom moo jàngale ne teqalikoo dina am si xeetu yonente sallallahu alayhi wa sallam daf ne juif yi teqalikoo woon nañ si nàngami xeet chrétiens yi teqalikoo woon nañ si nàngami xeet mu ne waaye nag samawu xeet wi dina teqalikoo si juróom-ñaar xeet ak ñett nee na juróom-ñaar fukki fukk ak ñaar yépp sa woro lañ jëm ba mu des benn bi te benn boobu yi mooy kii bokk na tamit si li mu jur mooy ak faiblesse boo xamante ne yëg nañ ko lool si buñ songoo songee diine lislaam ñu mën ko défendre sa anam ga gën kawe ndax réew mi ñuy dund aw tubaab moo fi ñëw daal di ñuy noot bi mu fi génnee ne génn na waaye bàyyiwut ba léegi nootaange googu moom moo continuer di am lépp lu ñu bëgg a doxal si diine lislaam suñu biir réew mi nekk na lu ñu jafee lool lool lool la ko waral mooy ñàkk ñàkk ànd ñàkk nekk benn kon ak faiblesse jural nañu ko si teqalikoo gi nga xam ne teqalikoo nañ ko amul dara lu ñuy boole te nee nañ ñun ñëpp ay jullit lañ moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax si sa Sawbaan ne xaw naa ñëw xeet wi songu leen comme ni nga xamante ne euh, ay gunóor wala boog ay mbëgg suukar noonu lañuy ñuy songee palaat bi nga xamante ne ne am na ñam pour lekk la sa nekk saxaaba bi ne ko jamono jooja dañoo tuuti wala tuutiwuñ mu ne déedéet jamono jooju ñu bari ngeen waaye bariwaay gi amut amul njëriñ Sénégal gi jullit yi ñoo fi waaye li ñuy bari bari bari amul njëriñ moo tax pour ñu mën a booloo pour défendre diine l'islam dëgg dëgg dëgg da xam ne loolu am nañ ci problème jur na tamit mooy nit ñi li leen soxal mooy fa ñu bokk kese waaye diine ji moom seen yoon nekkut si lépp lu jug di dal lañu bokk kuréel ga ñu bokk loola jaral na leen lu nekk moo tax da ngay yéemu lool ngóor sii ma doon tudd bi mu njëkkee jub donte démb tamit yaakaar naa dolliwaat na yeneen yu gën a saf xam naa moom fa ñuy mujj mooy dañ koy bàyyi muy wax rek donc dañ koy bàyyi muy wax te xam ne yàlla moom moo ko nattu si mu jub dundam ku dem ba am âge bu toll noonu saa yoo waxee njombe ngay wax yàlla yàlla musal si mujj gu mel noonu bi njëkkee wax ñu bari juk di dénoncer li mu wax ndax dafa jam diiné julit ñi képp ku delloo téere yooyu mooy delloo nga diine lislaam songo nga diine lislaam am na si benn borom xam-xam bu jugoon di dénoncer loolu ne moom de bokk na si kenn si kàngami kàngami benn kuréel bu nekk fii si biir réew mi waaye ba mu waxee loolu nit ñi dañoo mel ne ñoom dañ doon xaar ñu ne moom dafa bokk ci kuréel googu kese léegi nag ñu song ka doon songu kooka ka doon bañ wax ji mu wax au lieu ñoom ñu dal waa ji si li mu wax waaye dañuy songu ka nga xamante ne boole na ko ci kuréel googa ñu ne moom la mu sa jublu mooy mooy mooy diingat kuréel googa xam nga loolu ak feebar la yow ku jug dal diine lislaam ñu ne dafa bokk ci kuréel sàngam nga ne lutax ñu naan dafa bokk ci kureel sangam loolu kon yow dafa mel ne da ngay ŋàññ kureelu sangam te yow jugoo sa ba mu waxee ngir delloo ay tuuma yi nga xam ne ko diine lislaam xam nga loolu ak feebar la loola nag moo ñu dal si réew mi ñuy dund wala moo dal ñu bari si ñun waaye jural nañu tamit mooy ay bidaa yu bari yu ñuy sos si sénégal sénégal liñ fi sos si ay bidaa dañ koy askanale diine kenn xamul nu mu doy moo tax amul benn bés booy jël si bésu at mi lu tudd danañ ci def loo xamante dañ ko escanele diine tu diine waxu si bidaa yooyee nag li muy jur si wàllu pas-pas yàq diine nit ki tar na lool waaye la muy jur tamit si wàllu yàq dundu doomu aadama bi si koom-koomam moo tax nit ñi tey jii lépp lu ñu liggéey lépp lu ñu fàggu si liggéey rek da nga gis dañ koy delloo si ndaje yu mel noonu te diine jàngale ko waaye nag di si jooxe waxtu woo xamante ne ni bu bëree bari bëri bari ndax ndaje yooyu ay mbooloo ñoo koy toog ñoo koy teew mbooloo moomu ana fa ñuy liggéeyee ana waxtu yee ñu tu war a toog liggéey ko léegi dafa mel ne kon bés bu nekk ak feet la daanaka bu nit ñi di feetu waroon a liggéey ngir mën a jëmale seen réew kanam réew yi la gën a jëmee. kanam si kaw aduna gi ñu nek ñoo la gën waxtu ñoo la am am seen am am seen alal fami dem lu leer naññi lay doon am am buy dem si diine nag si loo xamante ni yàlla moom moo ko sallallahu alayhi wa def alalam na xam ne alal jooju alal ju la waaye alal ji dugal si lu ñuy tuddee diine te loolu di diine loolu musiba la do si am yàlla do si am aduna te loolu moo bëri ji bu ñu doon waxtaan ak suñu bopp kese nit ki xoolaat boppam li nga xamante dina koy jël mu koy ñàkk si alal si xew-xew yu ni mel dañ koy askanale diine te bokkul si diine bu ko dajale woon par at dajale ko juróomi at war see liggéey ndóol gii nga xamante ne nii moo nekk si Sénégal dana wàññeeku lool lu bëree bëri bëri boo demee réew mu mel ni Amérique wala réew mu mel ni Japon est-ce que nit ñi tal nañ lu ni mel. moo tax dañuy waral faral di nettali benn histoire nee nañ ñooñu ñu tuddee jamaatu tabliq nga xam ne dañ daan wër di dem dëkk ak dëkk ba ñu demee Japon moom yàgguñ fa ndax ki ngay taxaw dangay bëgg yow mu lay déglu te moom bi nga taxawee di wax ak moom mi ngi xool li ngay wax ba xam am na solo wala amul solo maanaam li mu lay may moom du mot minute su dee yow li nga koy wax maanaam amul benn njëriñ daf naan may ma man damay dem kooku talut ndax àdduna lay liggéeyal. aduna lay liggéey dafa am jamono yoo xamante ne nii diine moo ko moom waaye am na jamono yoo xam il faut nit ñi daal di liggéey pour seen réew daal di dem kanam Sénégal li ñuy def si xew-xew yu mel noonu da nga yaakaar ne réew mi jeexalu dara moo tax événement bu ñëwee di événement diine comme lu mel ni Tabaski wala mu mel ni Korité nit ñi ngir ñu mu am mën a am xar mu ñu rey sax dañ koy jéggaani day jafe loolu xar du am nag du am ndax xew-xew yooyu jël na lépp kon limi muy indi si wàllu lorange si diine ak si aduna ken xamut du mu doy te loolu jural nañu ko loolu nak munu ci mu lu dañu delu ci sunna mo taxene sax sam daan wax naan si khutbam fa inna xayra al hadi hadiyu muhammad wa inna sharra al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah mbir yi la sa gëna bax njub yi yee sa gën a jub mooy jubu muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sallam waaye la gën a bon si mbir yi mooy la ñu sos te lépp lu ñu sos diine bi daa te bépp bi daa ak réer la muslim solo na ko yamut foofa mi waye jural nañu ak xiiroo ak ŋaayoo gu dox seen diggante diggante kuréel yeeg diggante association islamique yeeg lépp lu waaye di wax ak di ko def dañ naan fee la bokk ko déglu wala bokk ñuy yëkkati ay baat yu doy waar di leen ko di leen ko teg te jëmmi xuloo si ay jullit loola lislaam da see da see àddu wattandiloo ko xeet wi yonente sala sallam mi ngi wax si xadiis abi hurayra iyaakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul xadiis mooy tundiku leen njortu lu ñaaw ndax njortu lu ñaaw mooy waxtaan gi gën a gën a ñàkk dëggu après mu daal leen jox ay mbir mu ne mu ne wala wala taxassasu wala tajassasu wala tanaafasu wala taxaasadu bu leen bañan wala tabaaxadu bu leen kunu ibadallahi ixwaana kama amara jullit jullitay mbokkam laa yadlimuhu wala yaxzuluhu wala yaxqiruhu du ko tooñ ba mukk tooñ daganut si jullit muy tooñ moroom ngaayoo gi nga xamante ne nii mu ngi am si biir jullit ñi si société bi ñuy dund léegi lan mooy solution bi sunu solution bi nekkul lenn lu dul ñu daal di mooy si sunna yonentu sallallahu alayhi wa sallam ndax sunna yonentu sa sam moo ñu boole ñun ñëpp yonentu sallallahu alayhi wa sallam waaw su fekkee ne loolu moo ñu boole kon nañ delluwaat si loolu daal di si ngoy moo tax boo xoolee xadiis yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax si xadiisu al Irbaat ibni Saariya foofa yonent bi sax tam junj lu mel nii si junjin wu am solo nee na fa innahu man yaish minkum fa sayara ixtilaafan kathiran képp koo xam ne gudd na fan si yéen dana dem ba gis ak wuute gu tar gu yaatu si samaw xeet wuute goo ko mënta ñàkk waaye nag lan mooy solution bi si jamono jooja mu jox ñu ko mu ne fa aleykum su ngeen bëggee mucc si wuute googu mu bañ nee na lor fa aleykum na ngeen na ngeen mooy bi sunnati wa sunnati alxulafa irrachidin almahdiyin jël leen sama sunna yem si ak sunna alxulafa irrachidin mooy xalifa yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw sama ginnaaw addu aleyha binnawajibi ngànk leen ko ak seen yi ba ñuy dëgëj ba mu dëgër a nga xam ne du rëcc mu ne wa iyaakum wa muxdasaatu l umuur moytandiku leen lépp lu ñu sos si mbir yi ndax lépp lu ñu sos bidaa la te bépp bidaa dal ak réer la abu daawud solo na ko ak ahmed si xadis bu wér kon loolu mooy alqadiyatu l ula sunna delluwaat si sunna rek moo ñu mën a boole te loolu lu logique la mooy gannaaw maanaam xalaat yi wuute na xalaat yi wuuti na ngir xalaat yi mën a nekk benn il faut dañuy delluwaat fa nga xamante ne ni diine islam fa la cosaanoo te diine islam si jamono yonent sallallahu alayhi ak jamonoy saxaaba ya ak siècle yi gën a jege jamono yonent sallallahu alayhi tam topp sax diine ji dafa seetoon wecc amul dara bu ko moo tax booy xool ngir yi sosu si jamono jooja ngir yooyu yëpp dañoo dëppoo si li ñu tuddee pas-pas si pas-pas ndax saxaaba yi doo dox ba mukk gis benn masala boo xam dañ naan dañ cee wutee te pas-pas moom moo ko waraloon su fekkee ne nag li ñu tuddee alfuroo muy bànqaas yi loola moom sharia da see yaatal ndax tegtal yi mën naa ñëw di li ñu am li ñu tuddee ixtimaal nit ki yaakaar ne nii la ko gisee keneen yaakaar ne neneen loola du am contra nekkul contradiction boo xam ne day wuut day day jur day jur ak mbañeel wala ak féewaloo waaye li nga xam ne waruñ see wuti moom mooy pas-pas ndax pas-pas benn la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyiwul ay saabaam ñuy ñuy werante si pas-pas borom xam-xam ya nga xamante dañuy dellu si seen ngir di ko jël di dellu si seen fiq seen wàllu pas-pas tamit benn la moo xam Malik la moo xam Abu Hanifa la moo xam Imam Ahmad la moo xam Shafii koo si dellu si ngiram rek ña dëggal ngir ga si wàllu pas-pas benn la gannaaw si loolu nag si la lu bëri daal di sos si diine lislaam moo tax ñu bëri bu ñëwee si réew mi bëgg laa gëmloo ne ñun dañuy topp ngiru Maalik loolee la sëpp dañ koy wax noonu di sëlëm nit ñi rek dañuy topp ngiru Maalik si wàllu li ñu tuddee furuu sharia muy bànqaasi sharia waaye wàllu pas-pas moom toppuñ ngiru Maalik moo tax boo xoolee seen yenn téere yi sax dañ koy dañ koy détaillé fii aqdil ashari wa fiqihi malikina wa fii tariqati l junaydi saaliki maanaam téere yooyu comme ibnu achir na sama téere bi maa ngi ko maa ngi ko si pas-pasu al imaam al ashari abul hasan donte liñ koy askanlee deltu na si ginnaaw waaye ku nekk xam ne ne ko gannaaw maalik la ñëw lu téye ni ñuy jëlee si maalik furuucu sharia ñu gëm ko lool lu tee ñu jëlee si Malik li ñu tuddee usulu sharia muy pas-pas ba te ku nekk xam ne ne Malik la mu jàngale si bunt boobee amul kenn ku ko jàngale si ngir yi ndax Malik da see taroon lool Malik nit daan na ñëw laaj ko lenn benn laaj boo xamante ne nii dafa bëgg a xam kese si wàllu pas-pas day mer ba ne génnee leen ko jotaay bi kaka laajoon ni ko yàlla naka la toogee si arasham Malik keroog dafa mer toog na ab diir laataa mu koy tontu ne ko ñun de yàlla wax nañ ñu ne mi ngi ci kaw na mu toogee nag ñun xamuñ ko te loola laaj ko biddaa la te yow biddaakat nga génnal sama jotaay kon il faut ñu leeral nit ñi ne cosaan loolee la nit ñi di wootee moo tax bu ñu la gëmloo mukk ne yow mii ni ngay jaamoo sa borom yow da nga fi indi lu bees yow indi woo fi lu bees de ñoom ñoo indi lu bees bëgg la kaa gëmloo looy jaamoo sa boroom loolu dañ ko aaye ba nga am si dalil kii jaamu boroomam di sosi di ko kooku mooy indi tegtal bu ne lii lu tax nga koy weddi nga ne ko ah man gisuma yonent bi def ko wala mu ne la indil la tegtal nga ne ko déedéet man du ma indi tegtal yow yaay indi tegtal loo xamante di nga ma convaincre ne lii lu am si diine la léegi nag loolee yëpp ngir ñu mën a bennoo ba xol yi mën a dajee il faut ñu delluwaat si sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam te bunt boobu li si borom xam-xam yi jàngale dafa bari loolu moo tax téere ñu tuddee kutubu sunna kutubu sunna ak kutubu sunan bokkut ak sunna mooy pas-pas bi nga xamante ne moom moo bàyyee ko si yonentu saasam téere yu bari daal di koy jàngale mu nekk ay càllale yu am cës laay bàyyee ko si yonentu sallallahu alayhi wa loola boo se delloo da ngay gis ne bunt bi leer na nañ yi wala boo dem si laltaayu yenn téere yi nga xam ne ñuy tuddee kutubul kutubul al kutubul musnada comme lu mel ni saxiixu muslim kitabul iman ma nga fa wala nga dem ci benen téere da nga gis kitabul iman yooyu nga xamé dañ koy jàngale muy laal pas-pas deug deug deug deug te lepp di càllale yu ko ci ñom ba ci sallallahu alayhi wa sallam moy délo ci wat xéet wi daal di leen dajalé ba duñ teqalikoo mais feek ku ci nek yaangi ngoy ci li nga ngoy di poukéré wo fa nga jokk boba ngir ñu nek ben day jëfé lool motax sunu sallallahu alayhi wasallam am solo la ngir daal di dajalé nit ñi bu ñaarel bi moy jeexitalu sunna yonente salallahu alayhi wa sallam si li ñu tuddee al takaafulul ijtimaa yi mooy bennoo bi jullit ñuy war a doon ba pare dimbalante bi ñu war a def seen biir doomu aadama ni muy dundee dafay dund si anam boo xamante ne du dal day jékki-jékki am jékki-jékki ñàkk jékki-jékki tawat daal di dal si kawam nit ki lu mu am martaba martaba ak loo ko ñee ñee ñee mën naa ñëw benn moment mu mel ne du woon du moom te loolu gis nañ ko nga gis koo xamante ni démb li mu yoroon si am-am ak wér yaram gi mu amoon tey jii boo ko xoolee sa yaram day daw ndax doomu aadama moom moo néew doole. kon doomu aadama mënta dund si kaw suuf ne man kese man képp doyloo naa walis ñëpp loolee mënta nekk kon il faut nit ki di jaar si ay jaaruwaay yoo xamante ne nii dana am lu ko dal. loolee nag di dal nit ñi ñuy dund ci benn société lislaam da see joxe ak jeexital gu am solo rawatina sunna yonent bi sallallahu ngir ñu daal di am solidarité suñu biir ba jiital li ñuy tuddee dunduk doomu aadama ba ñu jiital li ñuy tuddee intérêt moo tax boo xoolee jamono jii ñuy wax ak yéen ay fan yu ñu génn am na benn xew-xew bu xewoon Louga benn hôpital jigéen ju dem bay wasin ñu ne dañ ko waroon opeere am négligence bu si am si ni ñu waxee ba jigéen ja daal di faatu ñàkk bakkanam mook doomam mais loolu bi mu amee ñu daal di koy siiwal si réseau sociaux yi siiwal ko si télé yeeg rajo yi si la nag xabaar yi di soog a di soog a di soog a jolli nga gis na nit ñi li ñuy dund si hôpitaux yi ak li ñuy dund bu fekkee ne bëgg nañoo faj nit day yore malaatam dem si hôpital nekk si cas bu grave boo xamante ne dañ naan duñ ko laal mukk lu dul day joxe juróom-benn junne wala day joxe ñeenti junne ba kooku mën naa ñàkk bakkanam si loola. xam nga loola ñàkk solidarité ak ñàkk jëf sa liggéey ak ñàkk jiital dundu doomu aadama loolu moom moo fa nekk waaye su fekkoon ne nit la koo xamante ne nii dund na diine lislaam sunna jeexital na si moom kookee balaa muy wax alal moom da koy day jéem a sauver ba ba muy tëlee ba kon loolee. noonu lañ koy gisee si wàllum paj waaye noonu lañ koy gisee si wàllum dundin nga gis nit koo xamante ne ni day xëy ba suba ba ngoon lu mu lekk du ko am rawatina boo demee si àll bi xëy na sa biir Dakar nit ñi duñ ko yëg lool lool donte am na ñu koy yëg waaye boo demee si àll ba gën a sori nit ñi nañ fay dund loo xamante ni yow boo ko gisee da nga naan déedéet lii moom nekkul si réew mi si anam boobu nag si ngay gis ñoo xamante ni lañu yor si alal ak la ñu dem si def si banque yi kenn nu moo day loolu nag mooy alal jalew waaye ña moom waxuma ko waaye ñi nga xam ne lewle nañ yor alal ju bari joo xamante ne nii ñu ngi ko téye di si di ko gën a yaatal di ko di ko waajal seen ndono te lañ sa waroon a def ngir wàññi loole société bi di jàmbat ak di dund loole defuñ ko si loolu nag ngir ñu mën koo amal suñu société il faut ñu déllu delluwaat si sunna yonent saa sam sunna yonent saa sam jàngale ni si lu bëri yonent saa sam neena ci si xadiisu Nu'man ibn Bashir mune mathalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى جلتني سين جابلانتي أك jàppalante ak yërmaande gi war a dox seen diggante dafa mel cër bu sa metti rek day awu si yeneen cër yi dootuñ mën a nelawati feebar ba day laal yaram bi yépp xale bi nga xamante dafa jékki-jékki yaram bi daa tànk bul yaakaar ne feebar bi yaram bi yépp la benn cër rek la si ay temps ñu ne la dafa am problème si buli gi wala dafa soj mag mi nga xam dafa jek jékki benn bañum di metti mu mel yaram bi foo laal day day aawul loolu la ko waral mooy benn jëmm ji la jullit ñi nag noonu lañu ñu war a mel jullit nag bu fekkoon ne noonu lañu mel képp ku gis lu mu war a jàppale moroomu jullitam loola moom du si gàttanlu ba mukk su ñee tuddee nag ak takaafulul ijtimaa yi muy jàppalante ak solidarité mooy fexe ba doomu aadama bi dund dund gi mu yeel lool ba lépp luy coonay xiif coonay mar coonay am paju coonay njàng ak yeneen yeneen yi nga xam day dal si kaw doomu aadama lootu mu daal di koy weesule boppam loolu nag fa tàmbalee mooy si famille bi di roogalaat dem ba si société bi moo tax lislaam joxe na si ay solution yu bëri yoo xamante ni feeñ na si sunna bi si jiitu mooy li ñu tuddee financer sa famille jox leen lañu ñu aajowoo si lekk ak naan ak la nga xam ne moo leen di jox ak fekk loolu tiyaabo ji si nekk kenn xamul nu mu doy yeneen saasam nee na benn dërëm boo joxe si yoonu yàlla ak benn jé dërëm boo joxe si goreel ab ab bakkan ak benn dërëm boo xamante ni da kaa joxe sarax ko ab miskin ak beneen dërëm boo xam da nga kaa joxe sa waa kër jox ko sa waa kër ba sa gën a màgg ba sa gën a rëy si borom bi mooy bi ko jox sa waa kër moo tax wax na si beneen xadis ne. nit ki doy na ko bakar muy muy saggan muy sàggante ñi nga xamanteni ñom la ñom la yor muy saggane ñi mu yor moy fexé ba doya lamu len lamu warona def si bir kër ga defuko waye mang koy def fenen wala bokk mang koy mang koy ngoy motax borom kër gi nek bir këram di joxe ci yoonu yalla subhanahu wa taala di dundal njabot gi seen lépp di yéwén muy dem di liggéey di sonn di ñëw loolu yee jàmm yàlla la jaamu yàlla gu mag la jàmm yàlla la goo xam ne yàlla bu ko ko fayee tiyaabu ju rëy mën nga sax ndax bunti àjjana dafa nekk bunt yu bari yoo xamante ne nii suñu boroom ku si nekk ak lam la yombalal am na ñoo xam ne yàlla fam leen yombalee mooy nañu nañu nañu nañuy góor góorgóorloo si seen waa kër moo tax la ngay def sa biir kër bul ko xeebu mukk moo tax yenn saa sam ne ba si tib bi ngay jël di ko jox sa soxna na nga xam ne loolu sarax la kon loolu nit ko bu ko xamee lépp lu muy def muy effort ak bépp coono bu ko si fekk da ngay gis ne loolu dana ko mën a muñ waaye tamit du def dara ba nga xamante ne nii da koy da koy puukarewoo wala muy teg njabootam coono goo xamante leen di xas lu tax defoo leen lii li may sonn si àll bi maa ngi dee du ma noppalu loolu du ko def dafay xam ne moom dafa nekk di jaamu boromam subhaanahu wa taala te loolu tomb bu am solo la si nekkin wi nga xamante nit ki war ko naka nekkee si biir si biir njabootam niki noonu tamit lislaam di sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngale na yeneeni anam si wàllu joxin si loo xamante ne nii dana wàññi coono yi nga xamante ne nii société bi dañ koy dund bi si njëkk mooy joxe azaka azaka il faut borom bi di ko génne moo tax yenentu sax sam bi yaman wax ko ni ko lii nga len di wax li nga len wax li démé ba dugg ci diiné islam mune xamal Ya nak né yalla waral na ci ñom ñuy joxe azaka alal la ju ñuy jël ci seen ñi am di ko delloo ña nga xamanti ñoo ñu ñak ñi azaka googu nak ngir mu jëlé fi ñak il faut mu di koy ñu di koy organiser

waaye daf ko organiser rawatee su fekkee dañoo nekk si réew moo xamante ne nii lislaam ma ngi fay dox moo tax état bi waroon naa jox anam boobu jéego bu gën a kawe ndax azaka li mu mën a regle si société kenn xamul nu mu doy su ko defee ñu organiser ko comme ni nga xamante ne nii sunduqu Sénégal di zakat muy euh, maanaam ni ñuy joxe azaka te mu am benn kuréel bu ko organiser fii si Sénégal nekk Dakar. seen base nekk fii si kulier bi si organisation bu mucc ayib bëriwaane tey jii ñu daan jox ñu ñu daan jox azaka fim mu ni nii ñoom dañuy joxe azaka dañuy joxe azaka te loolu si islam jublu moo tax azaka bu ñu ko génnee na mu waree organiser ko jox nit ki utal ko liggéey ba pare saytu ko moom benn at ñaari at bu ko doxalee moom day joxe waat azaka loolu bu fekkoon ne def nañ ko benn at ñaari at dawal ko ay at at yu bari ñaata nit ñooy ñooy ñooy mujj si ndóol si société bi kenn xamul lu mu doy kon azaka benn anam la tamit ngir ngir ngir jeexal jànkuwante yooyu ñuy jànkuwante société bi bokk na si tamit mooy islaam ubbi na yeneen i bunt yu dut azaka kese muy maye walla saraxe wala tabax li ñuy tuddee waqf dem na ba yonent saa asam nee na sax nit ki maye di ko nangu mi ngi mel ne ki wàccu ba pare di delluwaat ci wàccam nga gis ko maye sax di ko nanguwaat loolu daganut xanaa mu nekk diggante way jur ak way jur ak doomam kese waaye ba si gën a amati solo moom mooy lu ñu tuddee al waqf waqf mooy nga taxawal dara ne lépp lu fa génnee nañ ma ko defal fii def ko si yoonu yàlla cosaan li mooy Omar ibnu Xataab nee na dafa amoon benn suuf su yaatu su mu amoon xaybar bi mu ñëwee si yeneen sax sam ne ko ah man de suuf si moom bëgg naa ko lool bokk na si alal yi ma gën a bëgg si yi ma am si kaw suuf waaye nag dama bëggoon def ko si yoonu yàlla yeneen sax sam di koy xelal ne ko ah bu la neexee de nga daal koy téye bañ kaa joxe benn yoon nga téye ko lépp lu génnee si suuf si di delluwaat si doom si si jaamu yàlla yi ka nga xamante ne nii nag moom moo ko moom moo koy saytu. kooku nag moom comme que liggéeyam la na si jël kem kem aajoom waaye la sa des yépp na ko delluwaat si jàmbu borom bi subhanahu wa taala al waqful islaami muy taxawal dara tey jii loolu li mu mën a regle si société bi si coono yu mel nii kenn xamul nu mu doy borom alal bu jël jekki jékki daal di tabax benn immeuble bu mag immeuble bi di ko génne lu mu pompon ñaari million par mu ne lii de def naa ko si yoonu yàlla waaye nañ ko jox jigéen ñi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo génn si néegu sëy ba pare yor ay njaboot te amul ñu leen dundalee ñooñu ñaata nit ñoo si mën a jëriñoo wala mu ne lii de jël naa ko lépp lu si génne nañ ko jox daaray sàngam daara jooja ba ilaa yawmil qiyaamati daara jooja dootul fayati loolu nag bu bëree si société bi waqfu boobu mooy tax problème yi ñuy dund problème mu xiif problème mu paj ndax nit ki mën naa wax fu jékki-jékki ne lii de jël naa ko alal ji si junne nañ ko teg si hôpitalu sàngam képp ku am ordonnance wala mu am opération bu bu toll nàngam ñu daal ko siy faj loolu ñaata la mën a faj te pourtant organisation rek la ndax am nañ fi ay borom alal yoo xam ne mëne nañ ko waaye dafa nekk loo xam ne dañ ko war a organiser rek waqful islaam yi boo ko delloon tey ji si taaree xool li mu liggéey lu yéeme la jigéen ñi sax dañ daan def waqf moo xam lu rëy la. université yi gën a mag tey jii comme fu mel ni Azhar bu ñu la aw awqaaf yi ko yore woon si jamono kenn xamul nu mu doy xaram bii tey jii ngay gis jàkka yonent beeg màkka la ñëw si di fa wàcc si ay nit ak xaram ba la fa nekk ña fay liggéeyee la mu laaj si budget loolu dafa rëy. waaye ñoom bi ñu demee ba gis ne il faut ñu utal ko dara lu koy génnee dañ ko tabaxal immeuble bu mag a mag a mag a mag mooy loolee nga xamante ni fa la montre ba nekk pour lépp lu fa génnee di delluwaat si ñaari jàkk yooyu muy jàkk yonent bi ak jàkkay kaaba gi ba ilaa yowmal qiyaam ñooñu duñ am benn problème boo xam ne problème mu finance lay te jamono day ëlbatiku nit ki am amam mu nekk luy wéy mën nga jékki-jékki am jékki-jékki jamono ñëw amatoo waaye la nga fi taxawaloon di wax waqfu loola mooy continuer ba ilaa yowmal qiyaamati kon loolu it lu am solo la islaam daal di koy jàngale bokk na si tamit islaam yi mu jàngale si fexe ba li ñuy dund si société bi mu daal di oyof lool si ay coona sunna jàngale ko mooy fexe di kafaalatul ay taam mooy jirim yi ñu leen di ñu leen di ñu leen di taxawu ba li waroon waayu jur bi kenn si ñu daal koy warul yeneen saasam nee na képp ku def loola man ak moom si àjja nii nii nii la ñuy dendee waaye bokk na si tamit yeneen sax sam fi mu waxee ne képp kuy dox ngir wàññil jigéen joo xamante ne jëkkëram dafa faatu wala mu génn si néegu sëy wala miskin mu ne képp kuy dox pour yéwénal leen seeni mbir nee na kooka comme kuy jihaat koo xamante ne nii day jihaat si yoon yàlla wala kuy taxawee julli du toog ba mukk wala kuy woorta du dog ngir tiyaaba ju rëy loolu rek jar na coono bu loolu yéen sax sa waxat si benn xadis ne képp ku dimbalee jullit si benn jafe-jafe yàlla da ko keroog yomal képp ku yombalal jullit lu jafe si àdduna yàlla dana ko yombalal ay mbiram àdduna ak alaaxira képp ku suturaal jullit yàlla dina ko suturaal àdduna ak alaaxira jullit bi feek mi ngi dimbale mbokk jullitam wala mi ngi mbokk jullit mi ngi dimbale mbokk jaamam suñu borom di diko di sey mbiram li ko don tamit bokku na ci li islam jangalé si tombu bi moy fexé bay dekk ndor yi ndor yi sa saasam bi mi jangalé bo toggé dara lu am ñeex nang ko nang ko yaatal fexé bayyi xel sa ndor bi sa ndor bi nga xam da fay xif amu dara nga may ko ci ñeex moom moy nga tibbu dal di koy yakal ak dekk ndor li ci islam jangalé tamit lu bari bari bari la rawatina dëkkandoor gi nga xamante amul te ku si nekk yaa ngi dëkk koo xamante ne nii loxoom jotul ginnaawam nga koy gis saa su nekk est-ce que yaa ngi koy nemmeeku kon loolu yëpp lislaam jàngale na ko tomb bu ñetteel bi xam naa ñu xaw bu ñetteel bi mooy asaru sunnati nabawiya fi taayushi silmi bayna afraadil mujtama njeexitalu sunna yu den sax asam si jullit yi naka la ñuy def ak waa réew mi naka lañuy def ba dund si jàmm dund si jàmm yonent bi sallallahu bi muy dund Medine dafa gàddaay jóge Màkka ñëw nekk fa kilifa dëkk ba te ba muy ñëw am na kilifa yu fa nekkoon loolu bu fekkee ne ab kilifa dafa ñëw nekk si dëkk keneen ki beneen kilifa jóge si beneen dëkk waa dëkk ba jox ko bopp loolu mën naa indi ak ñagas ñagas seen diggante mu fekk fa ñu doon dund si biir société ba ñeneen ñu dut ay jullit ay naafeq nekk fa ay juif nekk fa yeneen saa dund ak ñoom foofee si biir Médine fukki at yoo xamante ne jëflante bu rafet moo nekk seen diggante kenn mësta dégg coow gu dox diggante yeneen saa sama ak kenn si waa Médine kon dund si jàmm si biir société yeneen saa sama ñu si jàngale si sunnaam loole amul kenn ku ko mën a jëlee feneen yemut foofa waaye dafa fekkoon. ñaari guree ñaari giir yi nekkoon Médine di al aws wal xaj xasraj nekkoon si ay xiiroog ŋaayoo bu métti métti métti yeneen sax ab fexe ba dajale leen waaye képp ku jiite aw nit ñuy dund ay temps ay ñagas-ñagas day dox seen diggante waaye bu amee si saa si yeneen sax sam da koy saafara si anam goo xamante ni coow du jib loolu yépp jullit bi war na ko jàngat xam ko ngir mu mën a dund dund ak doomu aadama yi si biir réew mi problème du baax problème du am loolu bu ma si doon joxee ay misaal yeneen sallallahu alayhi wa sallam daan na jël mbubbam di ko tayle si si benn commerçant boo xam ne juif la su fekkoon ne jëflante bu rafet doxut diggante bi loolu du ma sa nekk yeneen sa sama amoon na benn gone bu ko daan liggéeyal nekk ab juif mu daal di feebar mu dem seeti ko bi mu demee gis ne xale bii de soo sàggaloo day faatu mu ne ko waxal baati seere yi xale bi daal di xool ay way juróom ndax xale bu nekk lu mel noonu bu ko dikkalee dana xool lan mooy taxawaayu ay way juróom mu xool ko si si ay bët way juróom bu góor ne ko ate abal qaasim toppal yonent sallallahu alayhi wa sallam loola diggante bu rattax moo fa nekkoon jëflante bu rafet moo fa nekkoon bu rafetul woon abadan ba mukk waxuma la mën na ko seeti de waaye du ko wax mukk toppal abal qaasim ndax moom ba léegi mi ngi si diineem waaye ànd ak loolee gis na xare bi yénentu sax sax ak li mu ko yéene mu ne ko toppal yénent bal ñëw na si beneen bi waaye mooy ñam ñaar ñëpp ko ko waxandoo muy yaay jeg baay ji ne ko toppal yonentu sallallahu alayhi wa sallam xale bi daal di wax baati seede yi ba mu ko waxee rek mu daal di faatu yonentu saa sallam daal di sant borom bi ne maa ngi sant borom bi ko xette li safara jaarele ko si man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mës nañoo si benn xare biñ demee si xare ba bay retourné am kenn si muhaajir dafa mënoon a kaf benn si waalaan saar doxee ko kanam mu daal di jël tànkam daal di koy weq si ginnaaw bi mu ko weqee loolu rek kooku daal di mer bi mu meree rek yuuxu waalaan saar kaay leen xetti li ma xool leen waa muhaajir yi ni ñu may def kële tamit yuuxu waa muhaajir yi kaay leen xetti li ma waalaan saar ñu ngi bëgg dal si sama kaw rek coow la jug biñ ñëwee yenn saa sam ne leen lan la ñu daal di koy nettali mu ne bàyyi leen coow li ñu ne ko ah duñ fayeeku waa lan saar ko kon duñ ñu duñ fayeeku maanaam kii li mu def duñ ko ko fayeeku ndax nit ku tooñ dañ ko war a fay mais loolu mu ko def nekkul ak ngaañ goo xamante ne nii bàyyi na benn trace si moom yenn saa sam ne ko da'uha fa innaha na bàyyi leen loole teg leen ko suuf ndax lii ab medd la kenn du ko jeqar bi boo ko jeqar bee rek kenn dootu nokkeeti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul daal di dégg loolu bi mu ko déggee ne ah kon ñoom dañ ñoo bëgg a sotoo suñ delloo Medine danañ xam ne ñoom ñu doya di danañ leen génne biir Medine la in rajana ila al madinati la yuxrijanna al a'azzu minha al adal ba mu waxee baat boobu rek Omar dégg ko ne waaw yéen a dégg nga kii mu wax xaaral ma gaaw doo ma bàyyi doo ma bàyyi ma daal di jël baatam yéen saa sam ne ko déedéet bul def loolu parce que boo ko defee dañ naan inna muhammadan yaqtul asxaaba yenent day rey ay ay ay ay ay ay ànd ndooram xam ne ne naa fekk la waaye ba léegi daf kaa bàyyi si biir mbooloo mi ngir dund dund jàmm dund si stabilité yenentu salallahu alayhi wa sallam si qissatu xaatib ibn abi baltaada lu mel noonu tamit xewoon na mooy xaati bi mu dégg ne yeneen sax sax mi ngi war a dem ubbi ji màkka mu jël ab kayit daal di koy bindal waa màkka jox ko ab jigéen yeneen sax sax ñu daal di koy wax yu mu daal di yebal Ali ak keneen ñu dem fuqati kayit woowa si jigéenu woowa war a boog naroon kaa fuqati bi jigéen bi daal di koy génnee si kawaram bi mu leen ko delloo ñu daal di ñëw yeneen sax asam ne ko bi lan moo la lan moo la lan moo la tax nga daal di def lii mu ne ko dama see am ay mbokk yoo xamante ne jiwoon nañ ma teraanga ma waroon lool rek a tax ma daal leen bëggoona a bàyyi loo xel seen sag ñëw waaye du mukk ne dama laa weddi wala damaa bëgg a bëgg a siiwal sab secret mu ne ah kii de moom wax na dëgg yonent bi ne ko wax na leen dëgg Omar daal di buur ne ko bàyyil ma daal di koy ma daal di koy faat léegi yow yonent ndax kii naa feq la yonent bi sax ne ko déedéet Omar xanaa moom teewul Badar xanaa moom teewul badar lu lay wax ne yàlla tiib na waa badar yër na leen ne leen def leen lu leen neex jéggal naa leen seen i bàkkaar yépp nga xool foofu yeneen saa sam dunduk jàmm goog yi la jiital foofu ak nit ki lu baax la daan def mu jël ko nëbbee ko benn bu bon bii muy mu mu def yeneen saa sam nekk na si xare di joxe di séddale la ñu jëlee si xare ba kenn si saxaabaam ya bokkoon si ña nga xamante dañ doon génn topp bi muy aqra ibn habis ne ko idil ya muhammad manul yaw yenent sallallahu alayhi wasallam yen yéen sax sa ne ko khibta wa khasirta idha idha lam akun qad qad adaltu su fekke ne man de nekuma ko manu kon de a perte ngeen bam waxe waxee yenent umar daal di jugaat omar moom du ko du ko yàq fenn ne bayil ma daal di teqale boppam ak batam yéen sax sa ne ko dedet bayiko ki de lima gis moy dana jógee si ay géñoom ño xamanteni ñom ñoy genn top te moy xawaari ji nga xamanteni génnoon ñu si jamono Ousmane dañoo bokkon ci ku reelu yi nga xamanteni mom ni waxon ñen saasam yenn ya Muhammad te mom xamoon na loolu waye defuko dara lo xamanteni ni dana indi ñaka dundu si jamm kon yeneen sax dundu dund mu dundu si bir Medine ak dundu gi mu dund ak ay ak nim doon dundé jif fa nek lolé képp ku nekk sim réew réew moo xamante dafa dajale ay jullit ak ay yéefar dajale yeneeni diine dajale ku si nekk ak la nga gëm dunduk jàmm mën naa am tax xiiroo ak ŋaayoo même bu fekkee ne jeexu tàkk it mën naa wàññeeku sénégal gi nag ñuy dund dafa di réew moo xamante ne nii dëgg la ay jullit ñoo fi ëpp waaye am na ñeneen ñu dut ñu dut ay ay ay jullit li ñu seetlu nag dunduk jàmm moom moo dox seen diggante moo tax néew na ngay gis ñu ne xuloo jib na diggante jullit ak ku dul jullit waaye problème bi fa mu nekk diggante jullit ñi seen biir foofu la problème bi nekk loolu nag lu jër a faj la sunna nag faj na si lu bari bokk na si anam yi nga xamante ne sunna fajee ne ko mooy fexe ñuy jëflante njekk jëflante njekk suñu biir yonent sallallahu alayhi wasallam mës na wax jigéen ñi ne yaa nisaa al muminat laa taxqiranna jaaratun li wu walaw firsani shaatin mu ne yéen jigéen ñi bu kenn xeebal moroomam dara lu mu koy jox donte sax weewu weewu tànk tànk weewu tànk xar wee xam nga jëriñu dara mais li ñu si mooy lu mu néew néew néew nit ki na jox nit ki dara loola dana rattaxal seen diggante moo tax mayante ak joxante kado cadeau loolu am solo la motax bo xolé hadith bi ñew na ci benen baat bo xamné bukhari moko indi ci al adab mu fal mu ne tahabu de len mayante ngir ngeen di bëkkante ki nga nek ci kër gi gis ne jublu wala nga xey jindil ko ben cadeau jox ko ko ah señ bi de li de mom dama gis marché bi rek ma dal ko indi lool lim meuna liggéey sa digënté ak mom kenn xamul nu mu doy lam la jappalon day deñ sa sa lool lu am solo la ni ko noonu tamit mooy sor yi lépp loo xamante ni dina dana yëkkati ay dënn loolu nag li si sunna jàngalee bari na trop bi si njëkk mooy moytandiku tooñ jàngaloon naa la xadiisu abi hurayrata ba yeneen saa sam naan jullit du tooñ moroomi jullitam bu leen tooñante bu leen dummooyante moytandiku tooñ tooñ dafa nekk lu bon te yàlla dafa araamal tooñ si boppam araamal ko si si jaamam yi moytandiku ger ak lépp lu ñuy tuddee wor yeneen sallallahu alayhi wasallam aaye na nit ki di jaay si kaw njaayiku moroomam nit ki di jaay nga ñëw ne ko ah man de sama marchandise moom moo moo gën a yomb waaw kooku bu jëndee nga foog ne kooku après yow dina la dina la bëgg am na lu mu la jàppal yenn saa sam nee ne mooy dund ko loolu bu fekkee ne commencé na waxaale rek yow bul waxaale. bu fekkee ne commencé naa jëndee kële yow bu ko gaaral sa marchandise ba muy ba muy jugee si kooka ni ko noonu tamit jigéen ju ñuy labat day araam kenn di ñëw di ko labat boo xamee ne diw ma nga fa rek yow bàyyil waaye boo foncé rek bu fekkee ne yow yaa dem ba nga xamante ni jox nañ la ko nga daal koy dakk sa digganteeg kooka naka la war a mën a mel loolu ak mbañeel la koo xamante du dëñ ba ilaa yawmal qiyaamati wala boog dana jafe mu daal di dëñ ba sax. ki nga xamantene xamul ñew ci marché bi ki xam bum ko bum ko waxalel ndax bañ mu nax ko ki ngay nax ci jënd ak jaay koku lam lay jappal lu reey lay doon lolay ñew na ci sunna yeneen sa sa mësna ñew ci benn marché fekk nit kuy jaay dara mais ci suuf dafa am ak toy toy gu ci nekk mu ne ko waaw li nekk ci suuf lu ta ëlbati ko mu nekk ci kaw mu ne cell mu ne ko man ghashana fa laysa minna képp ku ñu ger bokko ci ñun kon moytu ko moytu ko ger bokk na si la lislaam jàngale si bunt boobu muy sunna mooy fexe ba nit ki di di di téye meram xoolal ko ñëwoon si yenn saa su ne ko man de damaa bëgg nga daal di may laale bi laaye biir waaye nag na nekk lu gàtt loo xam ne du ma ko fàtteeti yenn saa sam benn baat la ko xam ne ko laa taxdab bul mer nit ku dul mer kooku du am ak benn nit problème lu jafe la nag waaye lu am solo la ba si wàllu wér-gu-yaramu nit ki sax ndax am na ay feebar yoo xamante ni la koy déclenché mooy mer jabet gii am na ñoo xamante ni la déclenché seen jabet mooy mer ñëw si kër gi rek gis loo gisul rek nga mer mer moo xamante ni mënatoo téye sa bopp nga far jaaree fa am feebar boo xamante ni ba keroog ngay génn àdduna danga koy faju ni ko noonu tamit daal di téye sa làmmiñ mooy nit ki làmmiñam bi mu si wax dara lu dut lu yéewu lu dul lu yiw moo tax yenentu saa sa mës na taxaw ak Muaad ibnu Jabal Muaad ibnu Jabal laaj ko laaj ji am solo Muaad daf ne ko damaa bëgg nga nettali ma mbir moo xam ne moom may dugalal àjjana waaye di ma soril sa wara yeneen saa sam ne ko ah li nga laaj de lu rëy la waaye nag lu yomb la si ku ko yàlla yombalal boo ko bëggee de mooy da ngay jaamu borom bi te da boo ko da ko bookaalik dara di taxawal julli di joxe azaka di woor weeru koor di aj aj makk muy ponk lislaam yi mu ne xanaa duma la tegtal yow muaz si buntu yiw yi mu ne ah xamal ne koor pàkk la mooy day dox diggante nit sa wara sarax day fay njuumte comme ni nga xamante noonu la ndox di fayee sawara julli gi nit ki di julli xaaja guddi loolee de mandar la ne moom si ñu baax ña la mu jàng laaye ba moom yenente bi jaafa junubuhum anil madajii yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mooy ñu baax ña seen wet ya dañ daan sori seeni lal sa xaaji guddi ngir jaamu seen borom waaye mu daal di koy wax ne ko xanaa duma la nettali li nga xamante mooy kenuk mbir mi ak njobbaxtalam mu ne kenuk mbir mi mooy islaam kenoom mooy mooy mooy mooy julli njobbaxtal la mooy jihaad waaye nag mu ne ko Muaz xanaa duma la nettali nag li nga xamante ni moom mooy tax nit ki bu defee loolee yépp mu daal di mucc mu ne ko ah kay yonent mu ne xanaa nga daal di fegal sa bopp lii muy sa làmmiñ Muaz ni ko ah waaw yonent kon ñun li ñuy wax dañu koy jàppee mu ne ko sakilat ka ummu ko yaa Muaz yàlla nga dee Muaz waxin la waaye jubluwul si ne da koy ñaan yàlla way jur sax dina ko wax doomam kii yàlla na dee rek waaye bu ñu nekkoon day dee léegi moom du ko nangu loolu waxin la si arab ne ko yal na la sa sa yaay ñàkk yàlla nga dee Muaaz xanaa xamoo ne amut dara luy ndërmee la nit ñi soo war a du seeni ngóobitu seeni ngóobitu làmmiñ kon téye làmmiñ lu am solo la rawatina si jamono ji looy wax na nekk loo xam looy wax mu nar a nekk musiba na nga ko bàyyi su dee yiw na na nga ko mën a wax ni ko noonu tamit lislaam di sunna yéen sax jàngale na foofu tamit mooy sàmmonteeg àq ak yelleef yi àq bi dox sa digganteeg jullit àq bi dox sa digganteeg moroom doomu aadama àq bi dox sa digganteeg say wéyjo àq bi dox sa digganteeg say njaboot sa dëkkandoor say jege ñaale bépp àq boo xam war naa dox digganteeg moroomam mu daal di koy sàmm lool li si ñëw si ay textes si sunna kenn xam nu mu doy ba sa topp mooy mu daal di nekk ku maanu ku maanu du jalgati mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suusam sa nekkoon xeybar dafa amoon accord bi doxoon digganteem ak yahuut yi muy juif yi ñoom ñoo koy bay parce que ñoo gën a xam tool yi waaye nag meññeet mi moom dañ koy xaaj si diggante bi ku si nekk daal di jël genn wàll chaque année nag bu ngóob bu ngóobee ba noppi yeneen sa sax daal na yóbbi kenn daal na yónni kenn si saxaaba mi nga Abdullah ibn Rawaha ngir mu daal di jël jël la mu war a jël indil ko yonent bi sallallahu alayhi benn bis nag juif yi ne ko ah waxal yonent bi nag mu xoolaat ak koor bi ndax tool yi moom métti na ndox mi bëreetut ak yooyu yooyu ab Abdullah ibn Rawaha ba muy dem ñu daal di koy bëgg a ger pour mu nattal leen loo xamante ni mooy ëpp lam leen daan nattal si loo xamante dinañ ko ger daal di ko koy jox Abdullah ibn Rawaha daal di ne ko nag bi mu ko bi ñu koy waxee loolu mu daal leen wax wax ju am solo mu ne tutimuuni suxta da ngeen maa bëgg a leel lu araam lu bon mu ne wallahi maa ngi waat si borom bi subhanahu wa taala bi may jógee si yonente salallahu alayhi wa sallam mooy kii ma gën a bëgg si àdduna waaye bi ma agsee si yéen mooy yéen a yéen yéen a ñi ma gën a bañ ci kaw suuf ndax ni ngeen mel ak ñàkk doon ngeen doon diin ay jullit mu ne waaye li ba leen di bañ yépp yépp yépp du tax ma daal di ñàkk a maanu sama digganteeg yéen yoon laay doxal du ma jalgati benn ak bu doo war a dox sama digganteeg yéen bi mu waxee loolu juif ne ko ah bi haada qaamati samaawaatu wal ard lii de moom moo téye asamaan ak kaw suuf kon nit ki lu ngeen mën a féewaloo ak lu leen mën a teqale du téye nga daal di maanu seen diggante su fekkee wax la su fekkee jëf la maanu ko dafa am solo société nag il faut maanu te daal di fay daal di fay law moo tax lislaam si jàngale di sunna yenn sax sam bëri lool loolu dina wàññi problème yu bari bi si topp mooy jeexitalu yeneen sunna yeneen sallallahu alayhi wasallam si tabax gi muy tabax li ñu tuddee famille famille ku nekk xam na ne famille tabax ko jubluwaay la boo xamante ni sharia ak sunna yeneen jàngale anam bu am solo ndax famille bu baax rek loolu mooy tax société ba daal di baax jaarale na ko rek si ay ay kanawaat yu bari kanaal yu bari ba sa jiitu mooy tànn soxna su baax wala borom kër bu baax fadfar bi daati diini taribat yadaaka xoolal ku baax xoolal ki am diine moo tax ki ñëwoon di wax yeneen sax sam ne may naa la sama bopp yeneen sax sam bi mu ko xoolee ba gis ne moom aajowoowu ko kenn si saxaaba yi jug ne may ma ko yonent sallallahu alayhi wasallam daf ne ko loo am mu xool xool amu dara daf ne ko est ce que mokkal nga dara si alquran mu ne ko mokkal naa saaru sàngam saaru sàngam mu ne ko zawajtukaha bima maaka min alquran may naa la ko si li nga yenu si alquran boo demee jàngal ko saaru sàngam saaru sàngam saaru sàngam foofa diine la yonent bi xool waaye xoolul am am bu doon am am am rek la du ko may kooku tax ñëw si beneen xadis boo xamante ne nii xañ na ak wéram dëgëreewul loolu waaye boo boolee bunt bi ak li si ñëw si yoon des na ko mën a tegtaloo mooy fépp fu ngeen gisee ku góor ku ñëw di labat seen soxna mu am diine am jikko ju baax na ngeen ko ko may bu ngeen ko deful fitna rek ngeen di ngeen di indi si kaw suuf loolu kon mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi mooy fexe tabax pas-pas bi war a nekk si njaboot gi yeneen sa asam da daan faral di ànd ak ay saabam rawatina xale ya mu leen di tabax si wàllu pas-pas xoolal bi mu ànd ak ibnu abbas fekk ne daf kaa tongoon si si gawaram mu ñëw ne ko yaa gulaam ixfadillah yaxfadka yow xale bi wattul yàlla mu daal di lay wattu mooy del fuglu borom bi subhanahu wa taala foo mënti nekk del fuglu borom bi ngir borom bi daal di lay wattu ixfadillaha tajidhu tijahak wattul borom bi subhanahu wa taala nga fekk ko sa kanam lépp lu nar a dal sa kaw suñu borom daal di la koy fanqal تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة خمل بروم سبحانه وتعالى wa taala فيخ yi وير yi féex jamono soo demee ba nekk si jamonoy métti métti ñàkk jot jamonoy nattu suñu borom daal lay bàyyi xel ida saalta fasalillah soo laajee na nga laaj borom bi sooy ñaan ñaanal ñaanal borom bi kese bul ñaan keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib sooy dimbandikoo na nga dimbandikoo borom bi subhanahu wa taala xamal ne xeet yu yépp bu na jajalo woon ngir lor la te neexul borom bi mënuñ ko waaye bu ñu dajaloo woon ngir jëriñ la te neexul borom mënul ko li yàlla di dogal dogal na ko xoolal pas-pas bii ñu koy sa aw aw xale bari na tey ji ay borom kër yoo xamante pas-pas bi yoruñ ko bu ñuy dimbandikoo keneen la ñuy dimbandikoo su sant sax doomu aadama la ñuy sant waaye du sant seen borom kon loola lu am solo la mooy fexe ba tabax famille bi si wàllu pas-pas bu ñaareel bi mooy sàmm famille bi càmmin goo xam ne day continuer tey jii jur yu bari dañoo démissionné ku góor ke ku jigéen ki li ñu gën a yëkkam ci sa mooy bi ubbi na école ba nga xamante xale ba dafay yendu ba ngoon moo leen di gënal école ba nga xamante ni treize heures xale bi daal di ñibbisi loolu moom bu amee doo gis kenn moom koy téyeel leen xale yi rek bu ñu mënoon sax samedi ak dimanche ñu dàq xale yi ñu dem si école bi dañ koy dàq ndax ñoom dañuy xëy dem liggéey comme ni ko góor gi xëyee dem liggéey su ko defee xale ba école ba lay nekkal bu ñu bisee la muy def si kër ga si ay waxtu ay simili yu ndaw mbindaan yi lay nekkal su way jur bi wàccee sonn na du bëgg a toog ak ñoom samedi beeg dimanche bi daanaka coow lay coow lay nekkee te loolu warut yéen saa sam ne ne kullukum raain wa kullu raain masulun an raiyati képp ku nekk si yéen ab sàmm la te ku si nekk des na la laaj lañ la sàmmloo woon noo ko sàmmee mu ne ku góor sàmm la si këram waaye ku jigéen sàmm la si këru këru borom këram sàmm gi nag ku si nekk da ngaa war a joxe sa rôle rawatina jigéen ji nga xamante ne ni li mën si njaboot gi si wàllu yar loolee ku góor ki mënu ko ndax ku góor ki moom day génn di di fàggu ji te boo xoolee léegi dafa mel na mbir yi dañ leen a dañ leen a albati jigéen ñi daanaka tey ji ñoo dàq génn kenn waxul na jigéen du génn waaye nag jigéen li mu war a xam. muy valeur am mooy fexe ba njaboot gi lam sa war a def mu daal di koy def si wàllu yar ak taxaw xool leen asma bintu bintu bintu yazid ibn sakan al ansaariya kookee nga xamante ni moom moo nekkoon xatu jigéen ñee ko yónni ne ko dañ la bëgg a yónni si saa saa mu dajeeg yonent si mbedd mi fekk yonent mi nga ànd ak ay saabaam <clears throat> mu ne ko yonent bi man de may yoon yónni ndaw ñoom ñëpp ñu daal lay gëmandoo góor gëm la jigéen gëm la waaye nag góor ñi yàlla jox na leen ngëneel goo xam ne jox ko jigéen ñi ñooy ànd ak yow si mbooloo yi ñooy dem ak yow si xare seen kër yi yaral leen njaboot ya wattul leen seen alal wattul leen njaboot ka waaw yenent ngëneel googu yi nga xam ne am nañ ko si tiyaabu joo xam ne dolleeku na sa la ñuy def yiw googu te gis ngeen jigéen ju mës a laaj diineem bu rafetee ni ndaw si ni mu ko laajee saxaaba yi ah lii de mësuñ kaa gis mu ne yow asma dellul sañu la yónni te leen te ne leen kenn ku si nekk si yéen sëy bu rafet bi muy sëyal borom këram ak nekk gi muy nekk ak njabootam si biir kër ga ngir njaboot ko baax loola weccee na lépp li nga tuddal góor ñi bi mu ko waxee loolu mu daal di wàññeeku kontaan di wax allahu akbar allahu akbar kon loola mooy li nga xam ne moom la lislaam jàngale moo tax li ñu bëgg a gëmloo jigéen ñi ne dañoo war a génn ñoom ñëpp jañu dem si mbedd mi liggéeyi comme góor ñi loolu moom société bu mu am xel la société bu mënta baax la jig tubaab yi jiguñu tubaab yi duñu ay way gëm seen doom yi sax dañoo am problème pour jëflante ak ñoom parce que da ngay gis si tubaab boo xamante ni day dem ba si benn centre islamique gëmul islam waaye day jël doomam dugal ko si centre ba ngir mu am yarul islam foofa ndax ñoom dañoo dañoo échec si côté booba ñun nag loola mi ñuy dab moo tax boo xoolee phénomène yi nga xam ne ngay gis si waxambaane yi wax waxi loola problème bi rek moom mooy dañoo mu am saafara il faut ñu delluwaat si ni ko sunna jàngale ni ki noonu tamit bokk na si ni ñuy tabaxee euh, famille mooy al binaaul aatifi fexe ba tabax leen si si ka aatifa mooy ñewant nga xam ne duñ màgg nekk ñoo xamante ni dañuy dañuy dañuy mën a def lu lu lu métti tey jii crime yi ngay gis ci société bi nga xam ne ay gone yu ndaw ñoo koy def lan moo ko waral mooy ñewante war nga waroon a dox seen diggante ak seen i wayjur da ngay gis ne dañ kaa ñàkk ba xale bi day mujj xol bi day wow lu mu def du ko yëg lu mu def du ko yëg yenn sax sa mas naa toog kenn say saxaabaam xasan ñëw mu daal di koy fóon mu ne ko kon yéen da ngeen di fóon seen doom man de am naa fukki doom mosuma kaa soo fóon mosuma see fóon kenn yenn sax fi ne ko man laa ya laa yarxam ku dul yërëme kenn du ko yërëm kon il faut que aatifa daal am mooy ñewante yi nga xamante ne nii dafa war a dox seen diggante diggante wayjur yi ak ak ak njaboot gi <clears throat> Anas ibnu Malik mi ngi doon wax ne liggéeyal na yéen sax fukki at yoo xam yéen sax su ko wax e nee na benn bis yéen sax daf ma yónni ne ma demal nee na bi ma demee génn si mbedd mi rek gis ay xale yuy foo may xool rek far foo ma daal di koy far bi am xale. nee damaa jékki-jékki rek ba diis kenn ku ñëw sama ginnaaw rek ne ah Anas xanaa yónni wu ma la woon nee na maa ngi daw yonent bi daal di daw dem daal demaat way jur bu yónni woon doomam cinq minutes gisu ko fekk ko si mbooloo muy foo su dee ku ñàkk kersola moom foofu la koy njëkk a toroxale waaye su fekkee ne koo xamante ne mën na téye boppam danaan ko ba nga ñëw kër ga xale bi diggante bu muy dem foofu si yonent bi ba muy ñëw kër ga lan lay dund foofu te bu ñëwee kër ga lañ koy def mooy gën il faut xale am ñëwent war waroo dox digënti ñoom ak ay way juram bokk na ci tamit mooy al binaaw lu iqnaa yi mooy fexe xale bi ñuy waxtaan ak moom ba lim war a def wala lim xalaat ñu fexe ko dindi si wàllu si wàllu xiwaar bañ ko dindi si ne ko léegi tuug bul def li wala bàyyi lii abu umaama nettali na benn xadis moom imaam ahmad moo ko solo si musnad nee na yonent bi saa sam dafa mës a toog ay saabaam jékki-jékki benn waxambaane daal di ñëw ne ko yonent bi saa sam damaa bëgg nga daal di may jox ndigal ma njaaloo kilifa gu toll ni yonent tey jii su doon ab way jur rek benn doomam moo ñëw ne ko damaa bëgg a njaaloo loolu xam naa day jooy foofu moom bi mu waxee loolu saxaaba yi ne ko ma ma tuub li nga wax rëy na si kanamu yonent na yéen sax sam ne ko uddunu jege si loolu la ñu ko def jege si si xoolal xoolal wax jooju li mu wax rëy na de xale la waaye dina ko jege si kaay bi ñëwee mu ne ko est-ce que bëggal nga ko sa yaay mu ne ko déedéet mu ne nit ñi tamit seen yaay yi bëggaluñ leen ko est que bëggal nga ko sa mag jigéen wala sa rakk bu ne ko déedéet mu ne nit ñi tamit bëggaluñ ko seen mag bu jigéen ak seen rakk bu jigéen bëggal nga ko sa bàjjan bëggal nga ko sa tànta mu ne déedéet bëggal nga ko sa maam mu ne déedéet ñi ni tamit noona ba pare ne yàlla ya yàlla nga ko gindi yàlla nga ko jubal xale bi neene na bi ma jógee foofu li ma gën a bañ si kaw suuf moom ya mooy njaalo loolu moom mooy xiwaar maanaam xale bi li muy bëgg a def ak li mu jàpp bul ne bul ko defati bu ko def de dinaa la rey waxtaanal ak moom génne ko si xelam ba ëllëg fu mu mënti nekk loolu moom du si du ko xalaatati ba mukk البناء السلوكي موي فخي با تبخ جيكوم موي جيكو جو رافيت خام ديفوار اق بي ورا دوخ ديغنتي ماك اي واي جورم اق بي دوخ دوخ دوخ ورا دوخ ديغنتي ماك اك رك خالي بي خام موم خالي لا فامي وخه يونس صلى الله عليه وسلم مسنا ام بن خيو خيو بو امون موي ñaari nit ñoo xam dañoo dem xeybar jifi rek kenn ki bi mu demee am lum doon doxi ji moom daal ba muy dellu si rek fekk na morom ja moom jifi rey nañ ko te xamul ñu ñëw si yeneen sax sam ne ko ah juif yi de rey nañ sama mu ne ko est yow yaa ko gis mu ne ko juif yi nañ waat ne ñoom reyuñ ko mu ne ñii loo leen waat loo ñu daal di koy waat avant muy wax loolu doomi doomi doomi waajooju ñu rey xale la bi mu ñëw rek moom moo ñëw si yeneen sax sam commencé di wax yeneen sax ne ko kabbir kabbir xale nga xale nga xale du wax bàyyil sa nijaay wax wala kii la gën a mag daal di wax kooku daal di wax mu daal di koy déglu mu jox ko solution bi mu ne ko juif yi loo leen waat loo dañuy waat mu ne kon man maa koy jox diya yeneen saa daal di koy génne diya si si alalu julit xale il faut ñu teg ko palaasam ak yooyee il faut ñu jàngalaat ko xale yi te loolu lislaam li mu si jàllee ak sunna kenn xamul nu mu doy xam naa waxtu bi moom muy moo ñuy njett moo tax duñ ko mën a duñ ko mën a laal lépp moo tax yeneen sallallahu alayhi wa sallam ni ko noonu tamit noonu la daan yemalee surtout kuy dund ak ay njabootam kenn mës naa ñëw ne ko man day lii dama kaa may sama doom mu ne ko est ce que sa doom yëpp nga may lii mu ne ko déedéet kenn nag laa ko si mu ne ko ah seedeel ko keneen mënu maa man mënu maa seede mënu maa seede tooñ gii mooy yemele diggante doom ndax boo leen yemele wut danañ ku si nekk da nga jàppal sa morom dara yow it dinañ la ko jàppal loolu yëpp lislaam jàngale na ko bi may mujjee si tomb boobu mooy tabax yaramam ba mu nekk yaram boo xamante ni day dañ koy waajal waajal ko si xam-xam waajal ko si wàllu dëgër moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam nam daan waxambaane yi Usaamatu nu bi mu koy jox maanaam armée bu mag pour mu waajal mu dem xeex ak waaru boobu Usaama amagul ñaar fukki at amagul ñaar fukki daan na xiirtal waxambaane yi ñu ñagas ñagaslu lañu war a am si kàttan si wàllu sànni ak jam ñu daal di koy mën fett ndax loolee moo leen di tax ñu mën a mën a préparer seeni noonu kon xale bi tamit il faut ñu daal di koy waajal si wàllu xam-xam ba ñu nekk xale boo xam dañ koy gàtte rek wala bàyyi ko si ordinateur yeeg télé yeeg ak portable yi muy muy manipuler rek xale dañ koy waajal ba bu màggee mu mën a am responsabilité bu mag boo xam dina ko yenu moo tax yeneen sax wax na si benn xadis ne laa sabaqa illaa fi xuffin aw xaafirin aw naslin jongante de warta am fenn lu dut si yi ma tudd mooy jongante si wàllum mbas fas ku ku dàq dawal fas wala ku dàq fett ak yu ni mel loolu rek lañ war a jongante ndax loolu mooy tax nit ki daal di préparé wu dëgër ba jihaad bu amee mu mën a participer si loolu jongante yi nga xamante ni ñi ngi koy gis si àdduna te loolu di préparé jullit bi loolu dañ see war a dañ see war a nàmm suñuy gone ba xale bi màgg nekk ko am responsabilité mais xale boo xamante ni daanaka génnatul sax si si si kër yi si télé yeeg waxambaane yi léegi boo leen xoolee da ngay gis ni seen colin sax colinu jigéen la ay temps dañuy sol yu at yoo xamante dañ ne xawma peew lañ koy tuddee xawma maanaam yu doy waar yoo xamante ne ni dangay ngay gis ne lii jigéen ñi ñoo ko war a soloo seen waxin sax waxinu jigéen la bu njëkk ba même lii nga xamante ni mooy phénomène ngóor jigéen bi nga xamante ni mu ngi mi ngi bari si ñenn si société bi donte mën naa am sax duñu ay góor jigéen mais mais jëfin wi ak waxin ji loola bu njëkk ba bu mësaan sana toog ak sa way jur nga daal di wax wala nga toog ak ay jigéen dañ lay dañ lay artu góor waxam day dëgër loolu il faut ñu delloo si xale yi waaye xale bu si nekk lu mu daal di sànni ay loxoom sol colin goo xamante ni nu ko neex lay def simis boo xamante day xat tubéy joo xam day xat dàll yoo xamante daanaka boo xoolee ak jëmmam ay temps sañu boole si saag yoo xamante ne ni da ngay wóor ni ñii moom bu leen tuumaalu tamit jege nañ loola loolu il faut ñu daal di si. fexe nuñ ci tabaxé xale yi génné len ci ci lu mel non bi muy mujjé nak moy asaru sunna fil muraqabati zaatiya mooy jeexitalu sunna ci nit ki mu mën di fuglu boromam subhanahu wa taala suñu yonentu saa sam si xadis omar ibn khattab bi jibril ñewé daf ko laaj mala ihsan mu ne ko an taabud allaha ka annaka tara ngay jaamu borom bi ba mu melni yang koy gis ba mu melni yang koy gis mooy foo mënti nek ngay bàyyi sa xel sa borom gis nga doomu aadama lépp lu ñu mën a sol si moom si wàllu éducation te ragal wuñ ko borom bi subhanahu wa taala ba fu mu mënti nekk moo xam nit ñaa ngi koy gis wala gisuñ ko du ñemee def li lenn li ngir ne boromam mi ngi koy xool loolu defuñ dara te gis nga fekk fekkuñu wuñ suñu société bi mu dem ba ñiy dund si société bi ñu ragal seen boroom ba fuñ mënti nekk ak lu luñ mënti tiim seen diggante ak seen boroom la ñuy xool lépp luñ tabax mook zéro ñoom ñoo yem gis nga loolu bu fekkee na tabax nañ ko si société bi tàmbalee ko si njaboot gi muy law law law ba law si société bi lool lépp lépp lépp doo mës a gisati ku ñuy fal muy këpp kees wala mu koy détourné moo tax dëgg la am nañ ay borom xam-xam lool yu tasaaroo si société bi lu nekk jàng nañ ko waaye kóolute gi moom moo des te loolu ragal yàlla rek moom moo ko mën a moo ko mën a suuxat seeni xol seen biir bon il faut ñu delluwaat si tarbiya boobu ak tarbiya al imaniya al muraqaba dhatiya comme ni aji woor ji di fugloo boroomam ba bu làqatu woon si biir waañ ba di togg du ñemee lekk du ñemee naan noonu la ñu war a def si nit ki mu fuglu boroomam subhanahu wa taala ba fu munti nekk di bàyyi xel loola loolu bu ñu ko defee réussir nañ réussir nañ bépp jubluwaay bi ñuy jublu pour delloo ndaw si loolu nag sa kër ga lay tàmbalee waaye tamit day dem ba rogalaat si école ya école yi nag côté boobu moom sooxee nañ si lool lool lool lool te loolam dara mënu ko indi lu dul li ñu tuddee as sunna nabawiya li si lislaam jàngale nag ak sunna si ay tegtal bëri na trop trop trop trop xadis ibnu abbas ixfadillaha yaxfadka bàyyil xel borom bi foo mënti nekk foo mënti nekk loolu mooy li nga xamante ni moom mooy solution kon xam naa loolu mooy li ñu bëggoon a jukki si ay tomb si waxtaan bi هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاك الله خيرا نجي سنت لجرم الدكتور محمد بن مبنج ci njëlbeen ñu ngi doon andi benn lu tuuti rek ci li ñu tuddee CVM moom mooy kan waaye yaakaar naa bi mu waxee ba pare léegi xam ngeen moom mooy kan don junjo rek bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida auzu billahi minash shaitani rrajim uh, uh, mbokk julit ni ñu ngi am bekté bu baax uh, di fi dajé waat ak yeen waaye di sant borom bi tabaaraka rahmaan moom mi ñu may ñu fekke waat ramadaanu ren euh, ba mën koo taxawee comme niñ ko taxawee woon daaw ak commission féminine bu daaru istiqaama euh, ku ne daaru istiqaama wax yar ci islam waaye wax ci développement ba loolu tax na chaque année euh, commission féminine bi dafay amal lu mel nii mu di ay ndimbal yoo xam ne dañ koy jox famille yi nga xam ne dañ koo soxla jóge ci ay sénégalais yi tamit nag jëm ci ay sénégalais euh, ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi fii di jàppalante ci ay cotisation waaye ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci diaspora bi ñoom tamit am kóolute ci ñun di ñu yónnee séen ay xaalis ñu di ko dugal ci lu mel nii ñu fasal yéene amal yeneen activité yoo xam ne euh, lu mel ni séddale ay kit ci région yi euh, lu mel ne jàppale ay daara ci ay ndogu ci yóbbu fa tam ay kit jàppale ñi nga xam ne da caabi da leen a féetale ginnaaw ñoom tam ci yóbbu fa ay ndogu waaye def tamit ay ndogu ci ñi nga xam ne dañu amee feebaru xel kon nag euh, liggéey baa ngi noonu euh, euh, ñu ngi ci woo jullit ñëpp waaye ñu ngi ñaanal képp koo xame ne dugal nga ci sa dërëm yal na la ko borom bi fulal yal na ko def mu nekk loo xam ne dalay keral keral yomal xiyaam waaye mu nekk loo xam ne da lay dugal ci aljanay firdawsil aala asalaamaaleykum wa rahmatulah parce que ñun lii kër jaboot gu mu dugg bu ne yow da ngaa war a gën a dolli sant yàlla weeru koor bii sama classe ku mel ni man tey yaa ngi toog di xalaat suba loo yox sa waa kër yi tey ji yaa nga ko yóbbu tey ci sa kër yi amoo dara loo wax kon ñoom dañ leen di ñaanal yàlla suñu borom bi yow gën leen a dooleel te yombalal leen mbir mi. chaque année at lii dinañ ñëw fii ñun ñu jël si ko kenn ku ne dina ko jël yóbbu ko sa kër te ko yóbbu sa kër di nga am loo dundee ba weeru koor bi jeex loolu def ñu si dara wees ñu si kontaan ak di leen sant ñoom itam ñu ngi koy séddale si ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee utuñu si benn par par parparloo ñu ngi koy doxal ñu ko yàlla santaane ku sa wërsëg nekk rek ñu ngi la koy jox xanaa kay di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla borom bi gën leen a dooleel yàlla may ñun ñëpp ñu bokk dund fekkaat ba nag ni siy déwén ñu teewaat waaye macha allah kontaan nañu lool ñu ngi sant ñu ngi gërëm bu baax a baax. mooy faral di am loolu moom dana néew lool ñu tànn leen yenn xadaaya yi nga xamante ne nii da leen di soxal ñoom ñëpp ñoom ñu koy ñu si àddondoo waaye nag ñun état bi ñu yor. est ce que loolu arrangé na ko loolu nag laaj la waaye gis naa ne man état war naa seqi jéego pour loola bal dina ko arrangé loolu sax ndax bëri na ay problème tey jii yu yu yuy jug si société bi état day dem ba da lot mënu si dara ñooñu diine rek ñoo si man dara événement marché yi nga xamante moom moo weesu woon daaw 2021 bu dul woon ñooñu kon lambay dina gën a ñaaw ñom ñoo taxaw wax ak kuréel yi wax ak population bi ñu dal leen dégg ndax nitu diine ak borom xam-xam bi wax ak société bi ñom dinañ leen déggoog ak xol ak xel waaye état moom buy wax ak société ñom dañuy xool ba xam li intérêt mi ngi si wala nekkut si kon lu bari si société bi loola mën na kaa régler ba si sax séntu weer weer feeñ na ak feeñut loolu mën na kaa la benn yoon te buñ ko organiser woon teg ko si xam-xam ñu daal di siy dëppoo état bi jox leen doole maanaam ñaari koriteek ñetti koriteek ak ñaari tëbëskeek yooyu moom dana fi dañ ba fa ba faaw ak yeneen i mbir yoo xam mën nañ ko bokk ak bokk vraiment loolu lu jot la moo tax ñi ngi ñaan yàlla yàlla daal di koy yombal wallahu aalam Mm. laaj bu am solo laaj laaj boobu jukki naa ko si bir waxtaan bi waaye dafa mel ne dama kaa dama kaa tëb bokk na si li tax nit ñi daal am jàmbu seen biir mooy li ñu tuddee mudara. Al mudara mooy maslaa masla nag bu ñu ko waxee mooy jëflante bu rafet ak belli sa kanam si loo xamante ni du si rol du si loroo tegtal bi mooy yeneen saa dafa mës a toog biir néegam am ku fëgg ñu ne ko diw la mu ne ko mu ne boobu moo ko Aïcha ñoo si nekk mu ne bi sa axul achira kii de si giir ba mu bokk moo sa yées ba mu ñëwee yenn saa sam daal di belli kanamam daal di toog waxtaan ak moom bu baax a baax kaf ak moom mu mel ne du dafa woroog li yenent bi wax nee na kii ku yées la waaye bi mu ñëwee mu daal di waxtaan ak moom waxtaan bu bu bu rafet bi mu demee Aïcha ne ko ah, waaw yenent yow de li nga wax ak li nga def ak waa ji dafa mel ne xaw na maa jaaxal yenen bi sallallahu ne ko mata ahittini ya aisha fahashan hashan nga ma xam ma nek nit ku bon man duma du nek no mu nek ku bon ki nga xamati mo gëna yees yées si doomu adam yi mooy ki nit ñi bàyyi ngir teet ak loraangeem nga gis foofu yonent bi sallallahu ñaari mbir la doxal benn mbir mi àdduna kese la benn mbir mi diine diine ji mooy laayee biir foofu wax na ni waa ji mel waaye àdduna ji nga xam mooy jëflante foofu moom belli na waxtaan ak waa kon du dagan mukk mukk mukk ñu ne dañuy dundante ja jàmm suñu biir réew kii di sa mbokk invité la si benn mbir moo xam ne da ngay wóor na na yow lii bi daal nga koy nga koy say fekk doo ko fekk mukk waaye nag foo dajee ak moom si marché bi wala foo dajee ak moom si kër gi wala nga am loo ko war a mën a yot moom loolu moom jox ko ko ngeen daal di kaf ngeen daal di ree kon du dagan ñu daal di leen fekk wala ñu fekk kenn si la def di ko jaamoo borom bi te diine jàngalewu ko waaye nag jëflante àdduna ak àllaaxira àdduna jii moom lu ñu ci mën a rafetal nañ ko rafetal loola moo lay teqale li ñuy wax su événement ñëwee ñu naan ñu nag gi maanaam chrétiens yi ñu ñoo bokk benn dund kon ñu feetu seen feet loolu dara newut si ah kay dara ngi si ndax loolu diine la du dagan waaye nag bu feet gi jeexee yow nga dem seeti ko nga am cadeau boo ko jox loola jëflante bu rafet la boo xam ne islam lam si jàngale dafa bëri lool lool jàngale ne dañoo war a xiiroo ŋaayoo jëflante bi na rafet waaye diine moom cadre diine moom loola moom il faut dañuy basé wu dañuy yem si fa ñu diine yemele moo tax du dagan mukk ngir ñu ne dañuy ut jàmm delluwaat ngir teewee yenn jataay yi nga xamante jataay yi bidaa la wala jataay yoo xam diine daf kaa contre déedéet duñ ko def waaye nag duñ si sukkandiku mukk nag bay xiiroo ngaayoo déedéet jëflante bu rafet moom si wàllu àdduna nañ ko jëflante boo ko waree seeti seeti ko boo ko waree demalanteeg moom demalanteeg moom boo war a waxtaan ak mu waxtaan ak moom ngeen seq li ngeen seq jàmm na ñooy wallahu alam responsable yaa ngi fi képp koo xam ne am na loo ciy def rek di sàkku tiyaaba incha allah ñu ngi fi beneen di leen fàttali ëllëg dina am beneen waxtaan bu fi am docteur Serigne eliman Ndiaye moo koy def mu ngi aju ci xuquuqu wa waajibaatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi kon ëllëg incha allah ci même waxtu bi docteur Serigne eliman Ndiaye moom moo fi toog kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan borom subhanahu wa taala mu nangul ñu ñëpp mu nangu suñu koor nangu suñuy qiyaam suñuy saraxe yépp kon wa jazakumullahu xayran wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon Mouhamad Silla mën na nodd هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى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 ci képp koo xam ne yaa ngi wut ngir defal borom bi tabaraka wa taala te bëgg jaay